نيوبوب نك ني بولك اك زيار تي اديما جي تيد جي جيتال تي الخليفه العام لتاريخ التجاني موي الشيخ سيد ابو بكر سي ابن الشيخ الحاج محمد المنصور ابن الشيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنهم مام سيرن بابا بكر منصور الخليفه ني نيوكو زياره كو زياره استمدار تبارك الله ندكل كو اتام ساكو تي مام نيان واي ديكو نيانال يالا يالنا يالا غنا غودال فنام يالنا يالا يوكو ويرم لپ لو خامن ينم لا بغ بغم لا ميبتام لا تي دينا جي بي سي نجابور غي سي مبوك يالنا كو يالا دافال sumbu yi mu rawat na juma ji nga xamne mi ngi ko tek ci loxol juma tu nur as-sunniya ci njital président alxaaj Maxtaar sis ak ñim ko bokkal ñep yalla na yàlla jàppal leen bañ àggale ko jàmm khalifa bi fekk ko momi ki rakam ak njabot gi yeb ak ñun talib yeb ñu jullindoo ko ak mom ay at yu bare bare bare bare yàlla man nako yàlla nako yàlla def ci barki yenen bi sallallahu alayhi wa sallam suñu nuyo ci mom nak moy suñu nuyo ci mbolam njabot cheikh sal hajj Maalik hajj Maalik yëpp radiallahu taala anhu bu ñu ci tuddee cheikh hajj malik Si Maodo serigne babakar Abdul Aziz serigne Mansour Si Dabbaax ak seeni rak mu yobale lépp lu njaboto ci mam Seex El Hadji Malick góor ak jigen ñom ñep di suñu serigne ñu nuyu leen ziyaara leen ndokkeel leen waaye nuyu ziyaar mboolem xalif généraux yep nak tabarakallah nuyu suñu waa mam Cheikh al Hadji Omar Fouti radiyallahu anhu ka nek ci bobu di Thierno mohammed bashir Muntaga Taha Cheikh Omar Thierno Madani Muntaga ahmed di nuyu bu baax suñu badjen suñu yaay badjen Fadima Muntaga tal mu yobale mbollem usra omar yep way mu yóbbaale tamit mboolem xalif généraux yep mbokk yi del siwaat ak yéen ci seen émission Maidatul Quran niñ ko baaxoo ajuma ju nek ñu ànd ci ak professeur Serigne mam Ousmane Ndiaye tabarakallahu ajuma bu nek ñu tabarakallahu jël ben sar wala ay yenati aya mu frem fanciel ñuko ko fa tabarakallahu professeur gannaaw bañ la nuyo ziar la ndokel la ñu bàyyi la nga nuyo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci leeru diina gi leeru tarixa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سيد أبو بكر نيجي yëkkati نيو ziar ak euh, nuyoo ndokkeel di ko sof ci sa nuyoo bu matale boobu commencé ko ci suñu kilifa yi ba mu làmb àdduna bi yëpp tabaarakallah ngi lay ziar sa àjjuma ji baax a baax ziar wax la de nag day day ànd ak làmb poos déedéet déedéet ñaar moo am ziar ak hadiya man joxuma sequma yow hadiya man ziar la am ñu xam booy booy ziar da ngay jël da ngay jël dañ ciy boolewaale kii nag ngi lay ziar ziar day ànd ak addiya waaw mais man gëwuma la doo sama sëriñ waaw léegi kon teel a ziar waaw maa waaw léegi téye naa ko waaw kon maa ngi lay nuyu dégg <laughs> ah man tam maa ngi lay ziar ci àjjuma ji macha allah eh, di ñaan yàlla eh, ni ñu commencé ci bismillah yàlla yàlla may ñu eggaleeg jàmm eh, ñu ngi woon ci suratul jinn fa tabarakallahu demoon nañ ci ba ci wa inna mina salihuna mina duna zalik kuna taraiqa xidadan fa lañ taxawoon incha allahu taala incha allah xam naa dañuy dem dellu resi incha allahu déglu Cheikh Mouhamadul Khalil Xusayri Xusayri inshallah allah mu jàngal ñu lenn ci ay ay aayaat ci yi nga xam ne moom la jàngat tey incha taala ñu dellu ci studio bi. ظننا أن أن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً sadaqallahu alazim macha allah mu nekk ayat yi nga xam ne moom la ñu war a jàngat tey ci suratul jinn professeur nañ ko doon commencé rek bi ñu jëlee sa suratul jinn ba léegi saa bala ñuy dugg ci aaya yi rek am ay ay ay quelques aaya yoo xam ne fa tabarakallahu wala boog ba quelques laaj yoo xam ne danañu ko laajte ci wàllu jinne ci boppam fa tabarakallahu laaj bi ma lay njëkk a laaj ci wàllu jinne yi mooy jinne yi dañoo am ay dëkkuwaay fan seen ay dëkkuwaay fan la waaw xam nga boo xoolee jinne yi dafa am ay xeet ay façon léegi xeet yu wuute la mm-hmm. ñoom sax ci biir alxuraan wax na kunna taraa'iqa qidadan mm-hmm. léegi ci biir xeet yooyu mm-hmm. xam nga tey boo ñëwee ci lu mel ni société nit am na ñoo xamante ni ñu ngi dëkk continent Asie ñuy dëkk Afrique ñuy dëkk Amérique latine yi nangam sax et cetera léegi boo ñëwee si jinne yi am na si xeet boo xam ne ñoom duñu lekk duñu ñu naan mm. waaw ñooñu dañuy gudd fan waaw kay ñoom du lekk du ñu naan bu noppi tamit euh, bi ñuy dee mooy bu yombal xiyaam jotee ba yàlla ëf buftu bi ñoom ñëpp ay dee am na ci xeet boo xam ne nag ñoom dinañ lekk dinañ naan mais daf si am benn xeet boo xamante ni moo gën a jege société nit léegi xeet bi nga xamante ni ñoom daanaka mën nga ne duñu lekk duñu naan mhm. ñoom ñi ngi dëkkee ci euh, ci asamaan ci kaw mooy euh, fi alxuraan di wax naa wa annaa kunnaa naqudu maqaa'ida lis-sam'i fañ daan toog nga xam ne fa la ñuy stocké toog foofu di di di tungoomante di tungoomante pour di déglu kaw asamaan yi foofu ñu nekk noonu am ñoo xam foofu lañu dëkk ñoom foofu noonu satellite gi ñaan dem nañ ci weeru dafa teg seen kii seen radar seen satellite yi pour mën a am kii foofu la ko foofu la ko américains yi teg foofu la ko tubaab yi di teg ah, foofu ñu jinne yi waaw fa lañ koy teg pour mën a am yenn yenn yenn connexion yi mais am na si jinne yoo xam ni ñoom ñoo ñun ñu ñoo dëkk. Hmm. sa biir kër mën nañoo dëkk sa biir kër. mën nañoo dëkk sa seen seen biir kër. waaw waaw kon xam nga dëkk nga ay jinne ba taay waay mu fontoo waaw. ragal ragal ragaloo dara. kan ji man dëkk ma ak jinne. yaa ngaa dëkk ak jinne. yaa dëkk ak jinne man ah. ah na yaa ñëpp xam ne yaa dëkk ak jinne. <laughs> d'accord. <laughs> léegi preuve bi wane ne am na ñoo xam ñun ak ñoom ñoo dëkk mën nañoo dëkk suñu biir kër mën na mën ngaa dëkk sa biir néeg sax jinne dëkk yow ci biir néeg bi nekk sa à côté yor fa ak njabootam ci sa biir néeg sa biir néeg loolu yonent bi sallallahu moo ñu ko jàngal ci euh, xare boobu mu doon def dañ doon préparer armée bi am ci koo xam te ni moom seet bu bees la day doo a takk soxna hmm. ak booy doog a takk soxna moom da ngay <laughs> da ngay doo bëgg a sori waaw mu laaj digal yonent bi pour dem xoole soxna si ñëw rek fekk soxna si génn ci biti mu ne ko looy def si biti si biir mu ne ko noonu dafa am lu nekk si biir mu ne ko mu ne ko duggal nga xool mu dugg fekk ngandam jaani ñàngoor ci kaw lal bi rek mu rocc jaasi ji rek gor ko dagg ko léegi bi mu ko daggee moog jaan ji ku njëkk a dee xamuñu ko dañoo seddandoo ko waxee yonent saa sam yonent bi ne Médine gi seen mbokk jinne yéen fi dëkkandoo su ngeen giseetee seen kër lu mel noonu lu mel ni jaan wala yaan rab yooyu ngeen di soupçonné ndax rab dëgg-dëgg la animaux dëgg la wala jinne la da ngeen koy eh, jox ndigal ñetti fan ñetti yoon ah fii ay nit a fi jën dëkk demal sa yoon fii ay nit a fi dëkk demal sa yoon bu demee nga xam ne jinne la su demul na mën ngaa rey comprendre léegi kon am ñoom ñun ak ñoom ñooy dëkkandoo mhm. di nekkandoo ak ñoom euh, man am ñoo xam sax ñooy lekkandoo ñoom tey am na ñoo xamante ni dem nañ am am nañ ay jinne yoo xamante ni daanaka fu ñu dem dañuy ànd ak ñoom dañuy toogandoo ak ñoom dañuy sentir ni dem na ba déranger tu leen hmm. waaw su su yenn jigéen ñi sax waaw moom la gën a yab sax ñoom la ñu aw ñoom la gën a yab surtout yenn jigéen yi nga xam dañuy xaw a mel na ñu rafet xaw a nii tuuti boo si dee xool dañuy am ay àndandoo dañuy tëdd sax gis muy tëddandoo moom si wet gi nii dañ koy sentir buy dugg si man amoon naa ci koo xamante ni bu bu demee kër xaritam sax di di di fëgg nii di sone nii jinneem ji rabb jinneem bi moo koy ubbil hmm. waaw ma am na si benn affaire boo xamante ni dal na ma Égypte boobu ñu ngi dëkkoon euh, Faysal hmm. Faysal lañ dëkkoon Tawaabiya hmm. ñi taxaw ci arab yi am benn xale bu jigéen jékki-jékki rek daanu commencé kii benn paawu naar woo ma quoi ne ma sa mbokk sa mbokk naaru yi ma tooj sa mbokk moo jàpp kee doo dem nga wax moom dëgg de xam nga ñun ñoo yab africain yi dañ ñoo yab lu ne la ñuy tuddee noonu ah, naar bi dafa gëstu ba xam ne gi rek dañoo yab africain gi rek léegi ma ñëw nag di ko kii di def ay affaire yi ba mu ximmiliku di ximmiliku nag yaa ji ne ma léegi naa ko si dimbalee affaire yooyu mais mais nii moom ma ko daal parce que ñoom Égypte dañoo bëri ay rab seen rab bi dafa bëri ba noppi dafa bëri affaire jinne foofu lañ cosaanoo ba noppi dañuy saay-saay mën ngay dugg ba si biir ñu sot la wala nàngam après ci laa si génn meer ma dee woo dootuma jot hmm. waaw mais kon jàppal ni am na suñoo xam te ñun ak ñoom ñoo dëkkandoo hmm. euh, léegi euh, am na beneen laaj mu lay bëgg mais ma jiital bi hmm. mooy faru rab wala coro rab bu nekkee ci nit ki maanaam jigéen ji am faru rab wala góor euh, góor gi nga xam ne dafa am coro rab naka la mën a naka la mën a xamee ne moom dafa am faru rab d' accord Abdourahmane moo koy laajte. xam nga yonent bi sallallahu alayhi jàngale na kenn ku si nekk rek mhm. am nga benn jinne bu ànd ak yow. Mhm. léegi jinne boobu mooy rab bi. Mhm. mën na baax mën na bon. Hmm? ban ko laaj yonent bi sallallahu alayhi ndax am nga ko mu ne am naa ko mais yàlla reyal na ma ko am na beneen xaddis bu ni yàlla jàppal na ma si ba mu tuub. Hmm. kon ku dul yonent bi am nga ko. est que bi mu bi mu jàkkaaru sit naa Aïcha ne ko da ngay da nga may fiira xaw ko wax toom ne ko xanaa sa seytaane bi cest à bu doon ci olof nga ne xanaa sa rab bi moo lay manipuler Aïcha ne ko dama am rab mu ne ko ba ci yow mu ne ko waaw mais yàlla defal na ma sutura du ma digal naka sudul noonu am na wax ne tuub na kon ku dul yonent bi am nga loolu loolu moom force la ñëpp la mais nag dafa am beneen boo xam ni du bi du bi yàlla bind ci yow mais ñeneen ñuy ñëw la ànd ak yow ah, ñoo xam dañ lay topp dañ lay topp waaw kay maanaam Eh, xale bu jigéen mhm. mu neex la rek nga topp ko jël numéro am mhm. di gaare buy génn ngay ngay ngay yuur sa parandee di topp noonu noonu jinne noonu lay def hmm. waaw maanaam di di topp xale bu jigéen fu mu jëm mu topp fu mu topp jëm ñu topp ko du ko may jàmm du ko may kii kon jinne dina gis nit bëgg ko comme ni ko ni ko góor di bëggee waaw sëñ Xaali Ture radiyallahu taala anhu eh, defe naa Dakar la woon de su ma juumul ma ko nettali mais wér na moom mhm. nee na mës na ànd ak di dox ba yàgg mu ni coow waaye gis nga rab bi ni muy def euh, xale bu jigéen bi hmm. daal bi ne ko ah sëñ bi de gisoon naa ko mais dama am kersa pour tudd ko pour wax ko hmm. mu daal jël dàll bi rek dóor ko mu tàkk <laughs> maa dégg dóor ko jinne ji dóor ko jinne ji mu tàkk kon nga gis ni noonu muy toppee kii léegi nag ñooñu ay seytaane la ay rab yu nekk li ñoo xam mën na ñoo ñëw rek singili la topp la ànd ak yow hmm. léegi nag ñooñu bu dee ñu baax lañ amul problème mën nañu ànd ak yow bu bu buñ gisee ne daraa ngi ñëw ci yow mën nañ la ko informer ay dégg mhm. parce que bu ñu gisee ne tey Ousmane Ndiaye ngi ñëw pour agresser la mhm. mën nañ la koo wax nen Ousmane Ndiaye mi setul wala nàngam bu dee ñu mhm. baax lañ waaw bu dee ñu bon nag contraire bi la ñuy def hmm. waaw mën nañu ànd ak yow sax ba di la wan yoo xam da ngay gis sax ku am jëkkër tëdd ba guddi gént jëkkër ji di di séq kaneen mu yeewu naan ko temps naan ko temps yaa ngi si ndoxaan bu rëy waaw gént naa ko yàlla wan na ma ko fekk ne xaw a seetaane jinne ñoo tax sëy ba bu ko defee jëkkër ji day waata waat wala bu tegee dara ñu sàcc ko ñu jël dem bu ko defee jëkkër ji yaakaar ni moom la wala nàngam loolu jinne daf koy def. jinne day sàcc. bu baax. nga teg dara mu sàcc ko du jinne koy def. bëri na diggante yu yàqu sëy yu tas yëpp fekk sàccu jinne la hmm. da ngay da ngay jeen ci dara benn un million waaw nga xam ne fan fan ko denc yow sa jabar rek yéen a fa am jinne di fa ñëw di jël dix mille bu ko defee bu jëkkër ji ñëw xool xool mu manqué mu jiin ko jabar ji wala jabar ji xool mu manqué mu jiin ko jëkkër ji wala chaîne or wala nangam loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ni ko jàngal ci xaddis bu wér yoo xam dafa wuute sax xaddis bu wér yaa ngi taskari de bu baax Abu Hurayra radiyallahu taala nee na xam nga moo yoroon caabi trésor yonent bi sallallahu alayhi wasallam azaka yeeg nangam sàngam Abu Hurayra nee na dugg naa ci magasin bi fekk benn waay bu sàcc ci azaka yi quoi sàcc ba def ci saako bi mhm. bay waaji dem ma ne ko niib téye yow da ngay ba foto rek. ni ma téye nii kat yow jéggi dama ne. ba fonto xay. sama loxo. ba fonto xay baaxul. waaye nag ab ab heure na ko nip téye. na ko yow ah da ngay sàcc. waaw kon dama dama ba déconcentré waay. doo doo doo téye sa loxo yi. léegi. waaw léegi Abu Hurayra Abu Hurayra radiyallahu ne ko. Uh-huh. niib téye. waaw ne ko dama la yóbbu si yonent saa da ngay sàcc nee na mu ne ko baal ma. Uh-huh. boo ma baalee dinaa la wax loo xam boo ko dee jàng jinne du man ci yow dara. jinne jee ko wax loolu. waaw jinne jee ko wax loolu. est-ce que Abu Hurayra ne ko lan la mu ne ko day jàng ayatul kursi. Hmm. yaa ngi dégg. waaw. léegi nag bi mu ñëwee wax ko bi mu ñëwee avant muy wax yonent saa sam ko sa waa ji la wax wax na dëgg ci ayatul kursi. waaw mais day fen da doon sàcc jinne la. am na sax beneen riwaay boo xam te ni waa ji dafa wax Abu Hurayra ne ko yéen bi ngeen ñëwee Médine commencé di jàng alxuraan di nodd moo tax moo tax ñun jinne amatuñ accès maanaam suñ dafa daanu loolu moo bu ñu sàkkin duñ dund ah kon béréb boo xam ne ñu ngi fay nodd di fa jàng alxuraan di fa tudd yàlla ah. jinne yu bon yi dañ fay daw dañ fay daw ah, kon xam nga ni fu dugg magasin yonente saasam di sàcc mhm. kon xam nga yooyu day sàcc Muaad ñëw na si yonente saasam ne ko man daal temps yi sama dépense bi mhm. dañ koy jël mhm. xam nga tey di nga jënd saako ceeb mu gaaw a jeex nga yaakaar soxna see koy jaay di ko natte jaaxal na ma de waaw Muaz ne ko man daal saako ceeb bi bu doon def un mois du def dix jours yonent daal ne ko da ngay bàyyi ba heure tel nga taxaw ci côté nangam jàng ayatul kursi Muaz nee na bi ma ko jàngee ba pare taxaw nee na gis waa ji dugg si di commencé di sotti si caako ceeb bi nee na ma ne ko niittee jàpp naa sama sàcc dëkkate yow yow sama dépense bi yaa koy sàcc mu ne ko man jinne laa baal ma ma wax loo xam boo ko dee def jinne du la mën dara daal ma baal ma daal na ko del jàng ayatul kursi yi kon lu lu baax la yoo xam ne jinne ju waaw xanaa xamoon ne euh, borom kër bu nekk sax war na bind cent 313 ayatul kursi def ko noonu ah def ko benn saafara bàyyi ci këram yenn saa yi mu raay si yenn saa yi mu raayu si

ba dem ci kër par exemple mu nekk Tiwaawan ba ñëw Dakar tey mu nee cëpp day am ku muy délégué soit la muy wele wala Pam Moxtaar wala nanga pour mu jàng wala maam Alpha maam Alpha def na ko lu bëree bëri mhm. pour mu jàng sourate Baqara pour bu ko defee jinne bi mu demee ginnaaw jinne ya a ñëwoon wala nangam ki nangam mu mën leen a canaliser macha allah waaw est-ce que lu am lu am am solo xam naa ne càcc googu moom yenn saa yi am lu la jaaxle yenn saa yi sa téléphone bi rek nga teg ko ñëw wër ko wër ko wër ko bëgg a dee après nga xoolaat rek parce que man daal na ma bu yàggul ah, dara sama sama sama commande télé réer na ah. ma wër ko wër ba son ba jënd beneen ah. mais fa ma ko gis moom foofu setaan setoon waaw jënd noonu lay kekkantoo fi ne jënd mën na nekk yow mën na mën na dëkk yow si biir néeg bi di la di la fontoo da nga mën nga tëdd nelaw mu simbi la gën a waaw am na si ko xam bu tëddee nelaw nii da koy simbi ba mu set wecc bu yeewoo yaram mu neen lay def ci yàlla yenn saa yi nga tëdd di nelaw suuf lal bi la ñëw di ko di ko di ko tël ngay bonde nga tëb bu ko defee nga naan damaa gént di bon <laughs> fekk doon gént déedéet parce que en général da nga gis kuy gént gént yu mel noonu yeewu yaramam di métti nga xam ne beneen affaire la mais fii fii ci Dakar dégg naa dafa bëri ay jinne stratégie jinne yi fii yu baax yi ak yu bon yi fan lañ nekkee fii ci Dakar waa xam nga tey boo xoolee Dakar ci géographie fi mu taxawee hmm. ni mu nekkoon euh, kii nga xamante ni mooy nekk capitalu Afrique l'Ouest hmm. fi lañ daan jëlee jaam yi fa la tubaab hmm. moo nekk tamit centre Afrique l'Ouest jinne yi Dakar waaw xam nga gisoo Serigne Cheikh. bi mu la wax naan jinne yi nekkoon ci sous région bi yëpp daw nañ ñëw. Hmm? waaw maa ngi koy wax fanweer at faalewulee ma na ngeen sang réew mi. damaa xeex a xeex ba sonn wax na dëgg. te su moom Serigne Cheikh côté boobu dëkkee woon noonu. ah côté relais côté relais boobu côté relais boobu. ay jinne yu bëree fa yu baree bëri. waaw léegi nag boo xoolee euh, dakaar nag maanaam centre jinne yi la. Hmm. su su su région bi. Hmm. moo tax boo xoolee jibarkat yi gën a dox ci wàllu jëbar ci wàllu ay rabak ay def ay féticheur yu mel hmm. noonu. Dakar fii la ñuy dem ku Dakar ñëpp Dakar la ñuy dem. parce que géographie euh, ni mu taxawee. en général dëkk yi nga xam dañu am ndox ndox wër leen. waaw waaw pour ñu nekk dëkk waaye jinne day day day yomb. parce que jinne yi géej gi mooy seen mooy seen cosaan fa lañ dëkkee fa la seetaane sax samp saison nee bo ñewé Dakar nak légui ñaar mo fi am dafa am ay jinne yu bax ak al jinne yu bon. waaw wa anna minna salihun wa minna duna dalik légui jinne yu bax yi dafa am côté bu ñuy dëkke ñom par exemple li naan ki quartier résidence banlieue nangam. waaw waaw jinne yu bax da ñom am nañ seen quartier. ha dañuy am quartier bo xamanteni jinne yu bax yu yiw yi. jullit ñi fofu lañuy dëkk. yu bax yu fa lañuy dëkk. bu dé fii Dakar. gis nga bo xolé côté ki côté boo jugee côté boo jugee palais. Hmm. Ah? Hmm. di ñëw ba ba côté Daraar. Hmm. nga jàdd jëm ci Zawiya bi. waaw ba ci Touba Sandaga. waaw ah mel ni kuy dem euh, jël Blaise Diagne bi. waaw mel ni ku jëm grande mosquée. gis nga grande mosquée fi côté kii nekkee magasin yi côté yooyu. waaw côté yooyu yëpp ba jàppu euh, cimetière kii cimetière yooyu nekk wetu Médina. Bétoir ba jàpp côté Bétoir noonu. foofu yëpp jinne yi fa nekk yëpp ay jinne yu baax ay jullit na fa nekk. loolu taxoon sëñ Ahmed jaan daayira radiyallahu taala anhu xam nga muqaddam bu Seydi Hadj Malick mu tegoon ko dakaar mais lan la ko tege woon Dakar ñaar la ko tege woon Dakar benn bi mu canaliser yenn turu yàlla yi nga xam day def fit tey xanaa xamu ne kii accident turu yàlla li muy rey oto accident oto du ko rey catastrophe naturelle du ko rey waaw lu mel ne ay ahamun saxoon ala yeesu fit yi muy def waaw tey mën na rey mille mille personnes ci benn benn année mën na dofloo centaine de personnes waaw

dee wala dof lay doon léegi nag Cheikh Ahmed Diagne daayira moom la daan moo daan canaliser yooyu da mm. nga daan gis ku ñëw dugg si xëlwa Dakar dóor dóor du gis dara Cheikh Ahmed jaan daayira lay gis mm-hmm. léegi jinne yi nga xam ne tamit tamit ñoo daan def ñaawteef yu bon yi di yàq kii ak yooyu moom itam yooyu dafa leen daan canaliser daan xeex ak ñoom ñooñu fan lañ dëkk mooy jinne yu bon yi mooy jinne yu bon nga ne am na côté boo xam te ni am na jinne yu ñu fa teg tëj leen ba léegi ñu leen tëj comme ni comme rëbës comme comme kii comme kaso waaw ah. comme comme euh, Sambe nañ tëj ay nit noonu nga xam ne leen tëj seen giiru dund am na jinne yoo xam te ne jàpp nañ leen ba canaliser seen tëj leen seen giiru dund mag mag ñu bëri na daan def allahu akbar waaw parce que loo macha allah am lu am am solo léegi yow da da ngay da ngay da ngay faj jinne nit bu amee jinne nii jinne dugg ko mën koo mocc ba ba mu taaxal ko parce que wax nga ma léegi na ma Égypte am na kum mu jàppoon Euh, ba euh, dégg nga Abdourahmane naan war na war na koo nga mocc ko ba mu wàcc ndax loolu tey ku jinne duggoon mu ñëw mu ñëw sees la yow man man mën koo mocc ba mu taaxal ko euh, premièrement mënuma ko ñaareel bi jëruma risque bi ñetteel bu ma kenn woo ci loolu non non yow yaa wax fii léegi yaa wax fii léegi Égypte waaw amna ko xamne jinne da ko dugg ben naar wala di la ne ki sen bokk yek japp nga japp ko di mocc di mocc bam wacc wàcc nak yow da ko don daw sa parce que jinne dañu dañoo dañ dañ doon bañ complot la motax nga don ko daw waye jinne yooya yo ya lay complot yu bokk la gi nek fi man nañ la bañu complot moccal rek de jinne ben la rek taxana wala bi nek Dakar hmm. amna na accès bi nek ci ginnaw end ci ben yow graw la fajal rek Babacar fajuma fajuma rab fajuma jinne moccuma mais comme man nga ko doo ci dimbale jaamu yàlla mënuma ko yëf na bu ma jékki-jékki woon na cat di fii noonu nga may bàyyi laay bàyyi bu rafet sax continuer émission bi laa du jëlee sama kii bopp te ñaanal la yàlla ñu daal di continuer sama émission boobu wala wala ma woo Pape Amadou Abdourahmane indi leen ma Abdourahmane daa mel ni jinne dañ koy jàpp <laughs> parce que xam nga xam nga xam nga euh, jinne mhm. euh, maanaam euh, li problème bi liy danger pour faj ko mhm. mooy jinne benn day gudd fan ba bi dañu solidaire seen biir. Mhm. ba noppi bu ñu jàppee du ñu bàyyi. Mhm, seen xeex du jeex. Ah, tey mën nga faj mën nga faj Ousmane Ndiaye tey. Mhm. jinne bi ko jàpp. ba di ko def loolu nga tàqali ko moom. soit nga ah. rey ko wala nga yeew ko wala nga tàqali ko moom. amul ci yow accès. muy xaar sa doom. bu amul ci yow accès mu xaar sa sët. ba sa téeméeri sët mën na leen jàpp. mas naa dégg ci suñu góor gi. sëñ Samba Ndiaye alxuraan ñu ngi koy nuyu. waaw waaw kooku moom aay na maanaam moom dafa mas naa koo dégg mu wax ne. de yenn saa yi nga dégg ñu ne diw jinne da koo dugg mu dàq la mu ne jinne kenn du ko maanaam rab kenn du ko tàqaleeg boroom. Mhm. da ngay fexe ba may ko jàmm. Mhm. très bien kooku xam na ko. parce que <laughs> moom. am na doomu bàyyi doomu bàyyi jinne. est-ce que waaw maam Soos Ndiaye. soxna jinne bi am na si juróomi doom. boo demee ci Pa Samba Ndiaye fii parcelle mu woon la ko. est moom lu mu la si wax na nekk. wallaahi macha allah ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax tabaaraka xam naa bu ma demee il faut ma dem ci moom mu am lu mu ma defal parce que man ànd gi may ànd ak yow tiit naa ci trop. tabaarakallah jërëjëf professeur <laughs> eh, ci laaj yooyu ñu dem nag ci eh, continuer li nga xam ne moom mooy eh, saar bi ñi nga war a tàmbalee tey وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا كنا بون خمي معنا معنا آية بوبو أن لن نعجز فيه لن لي لن لي مانم مانم لن لي تيك دق دق دق مانم عجز لن لا أك ولن نعجزه دمر جوجو فن لي دالو داكور خم غا لي با لي نيغي تي كونفرسانس جيني أنا واخي جيني نيوم بينيو ديغي القران سين رياكشن mais seen réaction la seen moroomi jinne yi lañ ko doon wax. Hmm, maanaam seen réaction yi. waaw seen moroomi jinne yi lañ ko doon wax jinne yi waaw. léegi jinne yi ñoom bi ñu déggee alxuraan rek. Hmm. immédiatement dañoo tuub. Hmm. mais yemuñu si tuub de. dañoo nekk ay doxaat ay prêcheurs. waaw moo tax bokk na ci jullit. boo déggee lu leer walla lu baax. ah li nga war a njëkk a def mooy convaincre say mbokk ak say am di jàmm waaw léegi. jinne yi bi ñu waxee mhm. ne ñun day am na ñu baax am na ñu bon yaa ngi dégg mhm. mu ne wa an naa danan naa wa an naa ñun yàlla ñun jinne yi danan mhm. naa wóoroon nañ ñu ne an li fi nekk tey mbir tey mbir lan nujiza mënuñoo të yàlla fil ardi ci suuf

bëri na uh-huh. nu leen neex mel nu leen neex soppaliku uh-huh. ba si yontu yàlla Souleymane ba mu ne ku may indil arasu balxiis bi uh-huh. dane ko balaa ngaa xef ak xippi ma indi la ko xam nga diggante diggante réew ak réew nga xam te avion bu baax sax mënu ko mënu ko daw 30 minutes yow xef ak xippi nga indi fa 16 xam nga loolu pouvoir la léegi nag nee na pouvoir boobu ñu am yëpp ñun jinne yi wóor nañ ni suñu pouvoir lu mu rëy rëy tewuñu yàlla ci dara hmm, ñoom loolu xamoon nañ ok waaw baatu nujiza hu hmm. ok ok hubo mi ngi dellu si yàlla xam tey bu ma nee ajaztuka bu ma nee ajaztuka fi shay'in maanaam tey mu ne woon ajaztuka fi tafsir mooy lancé naa la défi ci tafsir bi maanaam dévié naa la kale euh, naa la ba wër la yow mënatoo dem mënatoo bouger. maanaam am naa ci yow accès bu baax. Mm-hmm, mm-hmm. waaw bu doon làmba ma ne dox naa ca kaw. Ah, ba nga am ba nga am ba nga am ngemb ci suuf. maanaam jekku naa la la kay mooy jekku wax kay. Ah, mm-hmm. moo jinne nee nañu nag ñun suñu pouvoir li muy rëy rëy rëy. lan nu'jiza Allah. mënuñoo jekku yàlla fenn. mënuñoo am benn pouvoir ci yàlla. te it wala nu'jizahu maanaam mënuñoo rëcc yàlla. ma maanaam tey ñu munuñoo mënuñoo pexe fexeel yàlla. ba mhm. suñ pexe antu. te itam yàlla yàlla bu ñu naree pexeel tamit mënuñoo jaar fenn baraaw. mënuñoo jaar fenn. xam nga mënuñoo dévier yàlla. Mhm. mënuñu koo euh, gañe. Mhm. mënuñu koo jekku mais en même temps tamit wala nu'jizahu haraban mooy mënuñu koo rëcc. Hmm. xam nga nit ki mën nga koo jekku mën nga ko bañ a jekku mën koo rëcc. dëgg la tey mën nañoo jàkkaarloo mën a yow. mu wër mané suma xéxé yow duma la jékku. mais ma daw. waaw ma ma daw xam nga tey fi ne yow ni buñu jakaron tay tey. Mhm. ah bu dee dóor ak door ak man nga ma ray waye buñ ko téggé ci 100 mètres bi mom doo ma gis. lay <laughs> dégg waaw mooy. tàllal bi wala yu am jaan jaan moy la waji defon dem ci as ndaw diko labat bimu aggé di labat ndaw sa fekk fa faru ndaw sa <laughs> légui naka la tok ñom ñaar yi waxtaan ndaw sa ngi indi attaay yoy uh-huh. far bi mu fa fekk. far bi def na karaate def kënf ponkal ah, def làmb def mën a xeex. di génn kii médaille yi mu gagné quoi. waaw médaille d'or yi mu gagné ki mu dóor mu daanu. ki mu ah. dóor mu dee buy génn yooyu di ko te ah, léegi far bi mujj ñëw. mel ni man xam dafa xaw a tuuti. jékki-jékki bi yàgg di génne médaille Jeux olympiques yi mu gagné ci daw. Jeux olympiques yi ci daw athlète daw maanaam médaille d'or yi mu jël ci daw. <laughs> moom te bu koy génne di ko tegal <laughs> waa la di génne médailles yi mu dóoralin bu daanu waaw kii moom di génne médailles yi nga xam raw na ñëpp bu oto ba ko doon dàq sax moo ko raw maanaam ba yow boo jógantee bëgguma dóor ma dara ma dooma fi fekk waa kay léegi mhm. dama laa bëgg a firi wa inna an lan nu'jiza llaaha fil ard tey nit ki mën nga jàkkaaroo moom mu wóor la ni tey mhm. soo soo soo xeexee moom mën nga koo gañe mhm. mooy lan nu'jiza llaaha fil ard mënuñoo jekk yàlla waaye man nga man boo xeexee boo taxaweek moom mën na laa gañe mhm. waaye nag wala noox di saw hërëban man mhm. nga koo daw ba rëcc waaw yaa ngi dégg waaw <laughs> yaa ngi làmb kii euh, Moustapha Guèye <laughs> def rek di daw rek waaw <laughs> ah, léegi Moustapha Guèye la di daw rek yëkk na ngi xëcc yëkk ne bu ci reetaan sax bu xëccee mu di daw rek kooku boobu wala noox di saw hërëban maanaam Moustapha Gueye xërëban na xërëban bi ne prit te yëkk ni dóorul botul Moustapha Gueye naa la wax kër kër Ousmane fan la nekk Moustapha Gueye mu ñëme naa ko ah? ah Moustapha Gueye léegi na ah, ah, waaye day dese ngelaw Moustapha maa lay jégalu dégg sama fan sa moom day tubaarkàll léegi léegi nag loolu la jinne wax nee nañu mënuñoo jaamaaroo yàlla ba am ci ndam mhm. mooy bañ ko daanee ñeent yoon ba pare ñun mars ni <laughs> kii ëpp na téeméer léegi wala te it mënuñu koo rëcc nit ki man nga jàkkaarloo moom wóor la boo jàkkaarloo moom doo ko gañe mais nga daw rëcc ko mais jinne yi ne nee na buñ jàkkaaroo yàlla mënuñu fa am ndaw buñ jimee dawit mënuñu koo rëcc macha allah mu teg ca wa inna lamma sami'na al-huda amanna bihi fa man yumin bi rabbihi fala yaxaafu baxsan wala rahaqa gannaaw bu ñu xamee maanaa aay bu huda fii lan mooy maanaa bi dëgg-dëgg ak lan mooy maanaa baxsan ak rahaqan waaw xoolal. Uh-huh. innaa lammaa gis nga fi ne nii ba léegi yaa ngi ci waxi jinne yi de. déet ah, alxuraan laa la wax mooy waxi jinne de. alxuraan laay wax ngay wax de. de kan. yow ah. yaay wax waxi jinne man alxuraan laay wax de. ba léegi jinne yi ñooy wax. ah yéen jinne yi wax leen. léegi jinne yi. Uh-huh. bu jinne yi pare nga jox ma parole. ñooy wax ba léegi de jinne yi nee nañu. Uh-huh. wa annaa. lammaa sami'naa al-hudaa wa annaa. ñun jinne yi. lammaa. بعها خامنئي نيك سمعنا دعنا الهودا من القرآن يوم القرآن في الهودا اللي في النجوم يوم نينا يوم القرآن مو النجوم الهودا في القرآن القرآن اللي في الواقع وأنا لما سمعنا الهودا بنيو دعي القرآن ده نو يدف نو نو نو لا ديو ننتبه نقول لي كلو كجح ولا لي فن للجوع ولا نعم كن نعم ننكو كتير كدير آمنا إن مجد ما قمنا نكون في الراتب نكون في الجسد فوفنك دنيا يوم فمن ah waaw. te naka. Hmm. loolu yonentu saa salaam moo ko jàngal. waaw ah. yonentu saa salaam sax nee na eh, yàlla yàlla def na waa yaman daal ñoom ay jàmbaar lañ seen i nit ay jàmbaar lañ seen i jinne ñoo raw. Hmm. léegi foofu jinne yi. Hmm. ñoo fa mën nit ñi. te naka. waaw yonentu bi saa salaam xoolal jinne yi. bi ñu déggee alquran. immédiatement dañoo tuub. léegi waa màkk ñoom bi ñu déggee alquran di ko saboté. dëgg la wal xaw fii laa ah. tasmau li haada alquran wal xaw fii. Ah, <laughs> ah wallaahi bi si desit mooy yonent bi salaa salaam nee na toog naa saxaaba yi ne leen biir kat euh, kilifa jinde yi mooy seen imam bi seen waaraatekat bu mag bi mhm. moo ma rencontré woon pour ñu mhm. waxtaan ci wàllu diine mhm. yan laa daganal ci moom ak nu mu war a dem moom laa rencontré woon mu ànd ak nag ak njabootam fa laa nekkoon doon wax ak ñoom ba ma fa demee ma ñëwenti saa sam maa ngi leen doon jàngal sóoratu rahmaan allahu akbar waaye ñoo leen man de yonent bi wax de ne leen jinne yooyu jinne yooyu duñ leen duñoo leen man yéen nit ñi de ndax jinne yooyu kat bi ma leen di jàngal suuratu rahmaan mhm. bu ma àggee ci fa bi ay alaa rabbikuma tukadibaan mhm. yéen nit ak jinne lu tax ngeen di weddi xéewlu suñu borom mhm. nee na aaya bu daanoo rek jinne yëpp dañuy àndandoo nee na laa nukadib bi shay'in min alaa rabbika aaya bu daandoon ñu ne ko yow yàlla say xéewal jamais ñu weddi ko mun yonent bi ne leen yéen nit ñi man jàngal naa leen suratul rahman ba mu jeex ngeen nemm ngeen yëgul dara naan naan est-ce que rek est-ce que gi sa jàmbaar lañ mais dañuy nemm rek yonent bi ne dinde yéen dinde yéen man ndax ñoom ba ma leen jàngale suratul rahman bu may daaneel fa bi ay ala rabbika tukaddimaan rek ñu ni laa nukaddibu shay min alaai rabbika ay waa ji yow yàlla kan moo xalaata weddi say xéewal te yéen nit ñi jàngal naa leen ko ba mu jeex ngeen toog di ma xool moo tax muy aman naa bihi fa man yu'min mm-hmm. jinne yi wax de waaw yéen jinne yi wax leen jinne yi nee nañu fa man yu'min mm-hmm. ku gëm mm-hmm. bihi ci alquran bii ah? falaa yaxaaf fa man yu'min bi rabbihi waaw waaw sa kay bi rabbihi ci boroomam jinne yi wax de jinne yi nee na ku góor góorlu ba gëm yàlla ànd ak gëm yàlla gu dëgër falaaya xaafu tenket bu mu ragal mhm. baxsan mhm. wala raxaqan loolu mooy baxsan ak raxaqan d'accord euh, est-ce que xam nga ni saar bi ah hmm. waroon nañoo dajale jibarkat yeeg ñiy liggéey ci wàllu jinne yëpp mhm. ñu jàngal leen moom saar bii de dañoo comprendre gul waaw yaa ngi dégg ndax lu tax dañoo comprendre gul kuy tiitaroo ay jinne tiitaroo pouvoiru jinne hmm. ba tax doo julli doo woor di lijjanti ay sobe pour mën a mën a am pouvoir jinne yooyu. Hmm. déglul jinne yi nga xamante ni ñoom ñooy kilifaay jinne yi. waaw yaa ngi dégg. Hmm. ëpp leen xam-xam. Hmm. daan dem di déglu ji la malaaka ya wax. amoon pouvoir yëpp. jinne yooyu ñoom ñoo taxaw wax ni. képp koo xamante ni gëm nga yàlla. ñun jinne yi amuñu si yow pouvoir seetaan amuñu si yow pouvoir te amoo dara looy ragal ci kaw suuf yaa man ñëpp. kon contraire bi. ku gëmul yàlla. waaw nañ ci yow. Ah, jinne dañ lay manipuler di la nax. Mm-hmm, di la fontoo di la mm-hmm. kalle kalle. nga yaakaar na yaay waaj a fekk doo kenn. Ah. léegi nag léegi nag nit ki bu sàgganee ba ngëm-ngëmam ak diggante ma boromam. Mm-hmm. mu fexe ba jinne toog ci. toog ci ba dagg connexion diggante ma boromam jinne jo da koy jàpp di manipuler mën na laa jox xaalis nag mën na laa jox mbooloo mais il faut mu xiir la ci lu la ñëpp di jëppee. bala ngaa dee foog xiir la lu la di jëppee lu ñëpp lu ñëpp naan cam. dëgg la de parce que yenn saa nga gis fii koo xam ne dañ koy tuddee kilifa nga naw ko ci benn mbir mais da ngay am ci mu ay dig-dig yoo xam ne daal yenn saa maanaam da ngay da ngay dem ba maanaam yow da nga koy da nga koy mujj a la muy jëfandikoo ay turu jinne yu bon la dafa am dafa am benn benn benn benn sëriñ mhm. mooy ci ñii kii rek jëbarkat mhm. yàlla ubbiloon ko nag mu am alal gis nga bu añ jotee mhm. ñëpp dañuy sukk rek boole li ñëw rek te kenn du xam fu ñu ko toggee mm. muy tu muy muy ndawal gu neex. muy ndawal gu neex. ñu hmm. lekk ba suur. Hmm. mu nekk ci nekk ci nekk ci ci pouvoir boobu de. ba hmm. génn àdduna. bi mu génnee àdduna doom ji donn ko doom ji bi mu ko donnee tëdd ba guddi kilifa yi jinne yooyu ñëw dikkal ko nuyu ko mu fay la ñu ne ko ah yaa doon na sa baay mu ne waaw ah sa baay de li mu amoon ci pouvoir yëpp ñu ñoo ko jox lekk yi ñoo ko daan indi ñoo ko daan defal li mu bëgg yëpp ñun ñii la comme yaa ko doon nag ah ñu waxtaan mu ne waaw loolu de bëgg naa ko mm-hmm. ñu ne ko waaw pour nga doon ko nag da ngay jël kaamilu alxuraan ngeen baal ma ci waxin bi mm-hmm. nga def ci sobe maanaam nga tuur si ndox yàlla ma yàlla jéggal ci ni ma koy boo ko defee nga fanaanoo ko di nga am pouvoir boobu hmm? waa ji ne tekk ba yàgg ne leen waa baax na léegi bala ma koo def mm-hmm. suba dangeen di indi lekk yi ba ma gis ba pare hmm. lekk lekk yi ñu war a jox gànn yi maa ni wax dëkk bi ne leen suuba kenn togg añ ñaan ko jëf yaa doon na sa bàyyi bi añ jotee ñu indi lekk mu ni bu kenn lekkagul mhm. balaa kenn lekk na wax aoudu billahi min asheytan rajim bismillahi rahman ñëpp wax ko ñu ubbi bool yi bi ñu ubbee bool ñëpp dar seen gémmiñ lépp nekk ay dem douche ay toile subhanallah mun leen yéene sama bàyyi yëpp ci lii ngeen doon dund allahu akbar faran kon maanaam loolu lañu daan jël di leen ko soppil ñam wu neex ñuy lekk di béggee yaakaar na ñoo ca nekk am na benn kilifa ko xam maam Alpha xam na ko bu baax. Mhm. gis nga moom dafa nekkoon sëriñ daraan rey. daraan rey. rey lan. comme boo ñëwee ne ko damaa bëgg nga rey ma Ousmane Ndiaye. Mhm. ah danaa ne jox ma turam wala boo yore photom nga jox ko photom wala nga jox ko turam. waaw semaine ñaari semaine nga dégg na dem na yoonam. subhanallah xam nga ñooñu dañuy collaborer ay jinne léegi jinne yooyu ñoo leen rayaloon ibnu taymiya radiyallahu taala anhu bi muy xeex ak jinne yi soixante-dix jinne dugg ko hmm. muy xeex ba paralyser ko muy xeex ak ñoom di xeex ak ñoom ba leen ba canaliser leen ba téye leen hmm. xam nga lu ko wax hmm. baal ñu nga wax ñi ñii seen noonu ñi yëpp dëkk bi wala ko bëgg ñu rayal la ko ñu rayal di ko tuddal buur yi ko daan tëj ak yooyu pour ma rayal ibnu taymiya soxla mu si yéen dara kon ñooñu dañuy def loolu tey di nga gis ko yor jinne tàggat ko di ko rayloo nit waaw di ko accidenteloo ay oto di ko def defloo nangam ki naam yan si yàlla musal dafa bëri léegi léegi kooku di ko def di ko def ba mu génn àdduna mhm. mais mujj doom jafa donnoon waaw doom jafa nekk doon fa kaka doon waaw boo ñëwee di ko wax loolu naan la man loolu du ko def mhm. ndax damaa gis sama mujj sama mujj dund pap ah, waaw ok ak mujjam du rafet mukk ah, damaa mujj damaa gis sama mujj dundu pap mhm. moo tax loolu léegi nag jinne yooyu baal ma man mas nañ ma nettali koo xam ne dégg naa kooku fii ci fii ci dakaar la nee nañu maanaam moom nekkoon na koo xam ne dañu daan wax kii dafa baax dafa bëri alal àllam da ciy dimbale chaque ajjuma ay nag ay xar ay ginaar laan rek maanaam ñu bëri ka kon këram lañ daan lañ daan kiiwee mhm. mais bi mu génnee àdduna dafa amoon benn néeg boo xam ne moom rek moo fa amoon accès mu génnee àdduna doom yëpp daje pour ñu miraas ko ñu ne nag ne kii bi foog ñu dajji ko mais bi ñu ko dajjee comme li nga wax moo fa ne ay kaamil lañ fa rangal ubbi ko ah, fa lu muy def fa lu muy def fa la ko fa ko daan def sëñ Babacar mu mu ñu mu ñu yee loolu na am na ñoo xam ne dañuy jël kaamil alxuraan bu ah. ñu kii pam la ñuy fompo yooyu yëpp ay ay sacrifice rek ay yi def ngir bëgg am alalu àdduna am na dund gu gàtt wallaay wallaay ndey dara jaru ko ci àdduna te loolu yëpp jinne yu bon ñoo leen koy la koy jox waaw léegi nag jinne yi nag ku gëm borom bi mhm. yooyu yëpp ah duñ ci accès ci yow waaw mën a dara. moo tax te te lii sa wërsëg dañ koy jot. ah waaw tey tey boo fi xoolee ñi nga gis ñi am alal. am na fi ñu fi am alal nekk ay mhm. mhm. ñi ma gis man ñi ah wóoruma mais ñi ma jot a xam. Mhm. nga xamante ni ñoom dañoo collaborante ay jinne am si alal ak yooyu. mais alal jooju ba man Babacar du alalu dara. na si alal jinne yoo xamante ne buñ la ko bu la ko joxee xoolal ay kër mën nga see tabax mhm. jëndi oto lépp mën nga mais doo ci lekk sa jege ñaal du si lekk subhanallah loolu mu jëriñ lan waaw ah, man gis naa ci koo xamante ni xoolal du si ay otoom du si dugg yaay ji du si dugg njabootam duñ si dugg ay këram du fa fanaan yaay ji du fa fanaan njabootam duñu fanaan alalam yaay ji du ko lekk du ci lekk njabootam duñ si lekk mu jëriñ lan te fam koy te fam koy def yëpp foo xamante ni na ko ni fii bu ko fi defee mën na tas famille mën na ko faa def comme bu ko wóoree bu joxoon Babacar Niang tey mu taqali ko ak Ousmane Ndiaye ñiy raak suba ngoon gu dégg bëccëg suba mën na laa def millionnaire. subhanallah mais kon da ngay comprendre ne kon kii alal ji condition la. Mhm. waaw baax. jër dara jaru ko moo moo tax alal daal sëñ bi ku ko bëgg da ngay dem nga liggéey. wallaahi wallaahi ni li ma mas a dégg sëriñ wax ne alal dañ koy yàq mais baat bi xalaal la woon. waaw xalaal waaye léegi nag. ni sëñ Babacar Sy di wax ne mhm. gars dañ naan dañ kenn du ko kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti. waaw mu ne kii kii lijjanti lu lu la jut nag kooku a laj macha allah léegi jeunes yëpp koo si gis lan lay wax jox ma turu Oumou Moussa ah. ma xaw ma fu ñu jëlee yooyu ay jox ma Oumou Moussa ak jox ma turu turu eh, turu eh, barguut ak eh, jox ma nangam ak nangam ak waa kay di dof ah, dem seen boo jàngee ba pare nga wut sa liggéey boo li la yàlla suturaal ci sa liggéey nga doyloo ko jima boo yoree métier nga jëm ko góorgóor dem en tout nit ki li ko yàlla wërsëgalee balaa génn àdduna lépp dina ci jot macha ah, allah falaa yaxaaf baxsan wala raxaqan waa kay dinañ nag nga ne waa na mooy baxsa ak raxaqan léegi albaxs mooy firi wàññeeku hmm. loo xamante ni moom du jëm kaw day wàññeeku hmm. d'accord hmm. rëxakan mooy firi lu yokk loo xam du wàññeeku day yokk day yokk kay léegi luy sansam ci aaya bi d'accord léegi baxs mooy firi wàññeeku waaw mais rek lu am valeur maanaam naat la adjectif la waaw maanaam lu am valeur. Mhm. lu am valeur lu ñëpp mhm. bëgg. Mhm. luy lu baax. baax si muy wàññeeku saa yu xëy di wàññeeku. Hmm, boobu baaxul de. xam nga boobu baaxul. rëxëqan. mooy lu ñëpp bañ di ko daw saa yu ah. xëy mu yokk ci yow. boobu it baaxul de. <laughs> benn baaxul. léegi seetlul jinne yi moo tax moo tax euh, euh, waxu jinne yi fa man yu'min bi rabbihi maanaam ku gëm yàlla. falaa yaxaafu baxsan wala raxaqan du ragal baxsu du ragal raxaqan kon jëlal mafhumul muxaalafa bi kon ku gëmul yàlla joxoo yàlla sa bopp mhm. di ko laa collaborante ay jinne pour am mhm. kon ci baxs ngay dund ak raxaqan lan mooy baxs baxs mooy Euh, tàkk-tàkk mboob mboob mooy ñax bu ñax bu wow bu ndaw ne nga taal ko naa mboob boobi naa ba taay gis nga boo ko xasee taal mhm. une minute day tàkk ba dëkk bi yëpp xam ne tàkk na wala ko waaye du yàgg deux minutes mu ni mhm. faraas parce que tàkk tàkku mboob ak tàkk tàkku matt lu benn matt mooy yàgg loolu mooy baxs mhm. xam nga la mooy rëxatan mooy xel mu dul saa yu xëyee tiit di jàq di sew di kii ba ba dee léegi seetlu ñi stress stress très mooy raxakan mooy stress bu yéeg maanaam bu doon tension. day monte di yéeg bu dee buy wàcc bi day gën di wàcc. léegi nag seetal ñi ñiy collaboranté ak jinne di def yooyu ah. dangay da ngay gis koo xam ne day commandé jinne jékki-jékki rek na puuf am alal am nangam ak i nangam. Mm-hmm. ba ñëpp xam ni waaye kii alalam bi mu xëy commencé baxsan ma jéeg mel ni manque buy peer. manque buy peer oto yi mu jaay ko kër gee nangam dugg kasu génnaat léegi rëxaxan saa yu xëyee xalaat ni amoon na oto tey amatul oto. amoon na kër nit ñi ni ko doon gisee rëxaxan rëxaxan ba xëy na te lañ ci yàlla musal benn baaxu ci maanaam daal kon ut ut gi nañ ko nañ nañ nañ koy sellal mu teg ci wa inna minna al muslimuna wa minna al xaasituuna fa man aslama fa ulaika taharraw rashadan gannaaw bu ñu xamee maanaa aaya bi xool bi mu waxee wa anna minna al muslimuna ah ومن الوخل ومن المقسطون القاسطون باسكو مسلمون تغوتا تغوتا مقسطون دافنا قاسطون لان موتاخ نعم. لول ولا ولا موتاخ وخل كافرون لان لان موي لان موي معنى تحروا اك رشاد داكور لغي جيني واخ با لغي دي اه نيوم جيني واو جيني jinne ne an naa ñun jinne yi min naa am na ci ñun min googu minu tabiit la min naa am na ci ñun adjectif partitif am na ci ñun al muslimuna ñoo xam ne ay jullit lañ maanaam am na ci jinne yi ñoo xam ne ñun ay jullit lañ li yàlla def ñi ngi koy ñi ngi koy ñi la yàlla bëgg ñi ngi koy def di góorgóorlu ay jullit lañ waaye wa min naa am na ci ñun tamit alxaasituuna alxaasituuna mooy lan d' accord mooy ñuy dawal injustice ñu tooñkat am na ci jinne yi. waaw wax na dëgg de. Babacar nga fekk nga fekk euh, portable Babacar teg portable am dëkk ak Ousmane Ndiaye ci néeg. Mhm. nga jël portable bi. waaw di ko jax jaxasa ba mu jiñ ko Ousmane Ndiaye. waaw ñu xuloo xeex. naan naan naan naan ci cin cin faqul bënn. waaw kay. <laughs> ah loolu wax la nga tas ab sëy ah. tas ab diggante tas am pénc yàq loolu mooy xaasituun yaa ngi dégg de mhm. léegi xam nga almuslimuna mhm. jullit alkaafiruna mooy mooy mooy mooy muqaabala maanaam jullit yéefar mais bi mu nee def jullit dafa ne xaasitun xaasitun mooy kuy dawal injustice ku bew du tooñ waaw xaasitun mooy mooy kuy kuy dawal injustice kay kuy tooñ waaw di jalgati di yàqalaate di def lu ko neex léegi baatu alqist baatu alqist waaw léegi xam nga boo nee xa xasata waaw moy dawal na injustice. mi ngi togn boo nee aqsata. mooy maandu kunu qawamina bil qist. bil qist kunu qawamina bil qist. qist bi foofu mi ngi jóge ci aqsata. mais qast mi ngi jóge ci moy qasatun bi. manam xolal justice injustice. waaw yëpp yëpp baatu justice bi da ciy da ciy da ciy fekk. justice. mooy bu baax bi. waaw injustice. ok. aqsata mooy justice waaw qist mooy injustice léegi man gën laa reeral foofu xam nga ci arab ci arab baab ga dafa xaw doy waar dafa am lu ñuy wax hamzatul izala mooy lan hamzatul izala mooy dafa am benn baat boo xam ne baat bi lii lay signifier mais boo si dugalee hamza mu firi ko contraire ba tey boo nee xasata mooy tooñ na tooñ na xam nga tooñ boo nee aqsata uh-huh. nga dugal ci alif mooy maandu na hmm. léegi xarfu a dafa am doole ba mën na mën na mën na mën na changer maanaa bi même dafay am sax ci langue français hmm. normal waaw ah ne lii lu normal mooy lu jaadu la ah, anormal gis nga ah ah uh-huh. xoola aaya alquran boobu uh-huh. fi yàlla di wax naan akaadu ux fiiha di tudd jaakul nafsi ma xam ne akaadu ux fiiha akaadu xaw tuuti نوكي فيري أكاد خاوتوتي أخ فيها من نبو يوم الخيام كن نبوكو نبوكو نبوكو كان دخو منوكو لجي أخ فيها همزة همزة إزالة يعني أكاد أزيل خفاءها ما نم خاوتوتي رغم مورلين جين كيس يوم الخيام مورلو منكو est ce que dégg nga wax bi loolu dafa naqari firnde tey boo ko def firnde nga ne ak kaadu xaw tuutee man yàlla ux fiha ma nëbb ko de gis nga waaw te nëbb na ko te nëbb na ko pare mais kon hamzatu izala la ak kaadu uzilu xafa aha xaw tuuti rek ma muri leen rideau bi ngeen xam yomal xam mais defuma ko nag loolu la ñuy wax hamzatu izala moo tax muqsit gis nga al muqsit mooy ko maandu waaw al qaasit mooy ku dawal injustice léegi mu mu mu teg fa man aslama فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا لجي آه كن وإنا من من المسلمون كن وأما القاسيتون جنيه دول إنجستيس دي تون كن لينغ سي ديجي موي نيوم دون أي جلد بس كون دون جلد دون دول دون جلد ورت تون لينا مولي جنيه فمن أسلم وأنا من المسلمين جلد نيوم فمن أسلم كوسي توب بنا بي تحروا rachadan mhm. maanaam di di taxarri maanaam di gëstu di góorgóorlu rachadan ak njub mhm. léegi loolu laaj foofu taxaraw rachadan maanaam maanaam baat bi taxaraw ak rachadan mooy la d' accord maanaam Babacar fi ne fi lu jar a taxaw la gis nga nit ki bu dee nanga ne man jullit laa waaw tuub gëm yàlla ba pare ah mhm. bul yem foofu del def taxarri taxarri mooy del gëstu di xool ah. di seet ustaas yi ngay déglu di xool sëriñ yi ngay déglu di xool xam-xam yi ngay jël di xool li nga def di gëstu bu baax waaw maanaam di segg di vrai mot ba di segg léegi segg googu nag moo la mën a dimbale ah. moo tax mu ne mu ne jinne yi fa man aslama ku tuub ba pare ndax da ngay tuub a dem déedéet te xar raw boo tuubee ba pare nag deel segg di settantal rachadan liy njub nga tegu ci baatu taxarri moom la Seydi Hadj Malick wax soxna xarrir wala tudia li xaqihim waaw waaw baatu taxarri dafa baax ci lépp même borom xam-xam ne ne kii julli ci julli te xamul fan la penk bi ne na def taxarri taxarri mooy na laajte na def góorgóorlu daal góorgóorlu ba ba ba am ba am daal le minimum léegi nag su góorgóorloo moom de comme mu ñëw si place boo xamul fan mooy penku bi mu laajte gëstu ba amul dara mu daal di kàbbar na ni julli bi mu jullee ba fekk foofu du penku ba julleem wér na mais bu deful taxar ni nag ñëw rek kàbbar ni julli rek sëlmal ñu ne ko nii la julleem yàqu na parce que taxar ni dafa war ci julli moom la yonent saa salaam doon wax ibnu nawfal ibnu nawfal avant yàlla di yónni yonent saa salaam moom da doon def taxar yi waaw maanaam di gëstu fan la njub nekk ba dem ba taxaw ci kaaba gi daan ne ko yow yàlla su ma xamoon place bi gën bi ñu lay jaamu dinaa fa dem bi ma xamoon lan moo gën a neex ci yow yow yàlla dinaa ko def ba génn àdduna te yonent bi ñëwagul xam nga lu yonent saa sa wax yonent bi nee na bu yomal xiyaamee moom yàlla daf koy daf koy dekkal mu nekk benn nation maam benn nit la de mais dañ naan xeetu ibnu nawfal waaw comme ni ñuy wax xeetu Moussa xeetu Isa xeetu nangam moom dañ koy dañ koy kii moo tax Euh, inna ibrahima kaana ummatan maanaam day taxaw taxawaay peuple mm-hmm. da naan peuple nawfal te pourtant benn nit la kon ndekete benn nit tey mën na mën na représenter peuple mm-hmm. Mm-hmm. tey imaginel nit comme ku mel ni Cheikh Anta Diop waaw benn nit la góorgóorlu ba indi carbone 14 woon waxoon nañu géej gi mën na see génn benn foo xam du fay courant du ñu fay ndox léegi loolu tey bu du woon tubaab àndaa nga ñu fexe ba kii waaw yow ñu ngi maa maa ngi maa ngi maa ñëwaat ci yow ci Euh, tabaarakallaahu ci beneen laaj incha allahu taala euh, ndax sa jinne yi moom xam naa ne yenn saa yi ñu am am am am lu ñu lu ñu lu ñu jaxase Mouhamadou ca Italie mi ngi wax ne euh, kañ ngeen di jeexal saaru jinne yi ndax moom daal xam naa ne moom tam <laughs> saa saaru jinne yi daal mi ngi Mouhamadou Ndoye ca mi ngi laaj kañ lay jeex waaye incha allahu taala lépp nag di njëriñ ndax alquran moom lu mu ñu jàngal rek pour ñu war koo xam. dafa fekk mu nekk loo xam ne euh, suñu njëriñ lay doon te itam euh, yaa ngi ñu yaa ngi ciy jàngal lu am am solo ci wax wax yi nga xam ne jinne yi dañ koo doon wax di ko wax ak seen moroom yi jinne euh, dëkk ñun en tant que nit li nga xam ne moom lañ ci mën a jànge fa tabaarakallaahu mooy képp koo xam ne gëm nga yàlla doyloo ko subhaanahu wa taala fa mën nga am li nga xam ne moom nga bëgg ci sa àdduna te itam sa wàllu àllaaxira it dafay jag waaye bu fekkente ne da nga na fa ñukk suñu borom dugg ci wàllu lu mel ni ay wàllu zulmaani yeeg yu demee ni ki yooyu eh, fa tabaarakallaahu nit ñi dañuy yaakaar ne yaa ngay dund dund gu neex fekk yow yaa ngay yaa ngay yaa yaa ngay loru fa tabaarakallah eh, professeur gannaaw ba nga tàqalikoog eh, jinne yi la seet si woon ndax man booy booy recevoir jinne yi sama yoon lu ci nekk comme jëy jin dañ laa session te xawoon a yàkkamte moo tax ma baalan nga recevoir leen comme recevoir nga leen ba léegi yaa ngi woon ci taxarraw rasadan waaw ndeysaan docteur borom xam-xam bu mag la ñu ngi may envoyé message ndeysaan jërëjëf docteur mhm. ci baatu alxist bi alxist alxist bil kasr mooy al firi al add la mhm. bu dee xast mhm. mooy firi al jawra macha allah jërëjëf sëñ léegi ñu ngi woon ci mooy at maanaam bi yonent nga ne nga ne waaw naw far nga ne benn nit dana dana dana représenté peuple dana représenté dana taxaw taxawaay peuple waaw moo tax inna ibrahima kaana ummatan yàlla nee ibrahima nation la mm-hmm. peuple la parce que lu tax dafa dafa créé loo xamante ni ay nation yu bëri ñoo fay dajale mm-hmm. xam nga ibrahima moo créé aj aj bi wa addin fi naas bil hajji tey boo demee aj ñaata nationalité ñoo fay dem comme moo ëpp nation jeunes yi mooy mm-hmm. umma léegi nag ibnu nawfal nag noonu la doon def di taxarri kon képp koo xamante ni yaa ngi góor góorgóorlu di gëstu sa xel ba créer loo xamante ni sa peuple di ngeen si mën a dund. kooku bu yombal xiyaamee moom taxaw taxawaayu nation ngay taxaw yow. waaw léegi mooy baatu taxarri. Mhm. waaw ak xanaa xanaa moom la sëñ maam Ibrahima alayhi salaam doon def bi mu naan bi mu gisee jant bi naan xaazaaraat bi. di gis loolu ak taxarri la. léegi nag loolu tey. boo ko doon def ba dee ci te àggoo ca dëgg ga. waaw àjjana nga jëm. Ah, ndax boobu yéen a doon gëstu dëgg. akay léegi nag moom boo dajee yàlla yeneen saa bu dajee yàlla nag bu doon ku doon def taxarri mhm. comme man ma jóg di wër dëgg di wër dëgg di wër dëgg ba jotumaa gis dëgg ma génn àdduna mhm. nee na su ma dajantee yàlla yàlla ma leen ma ne ko aha yow mii laa doon wër ne maanaam bu yomal xiyam boo dekkee yàlla ngay ah, jàkkaaroo boo jàkkaaroo nga naa ko yow laa doon wër ba déedéet maa sha allah ndeysaan mu teg ci wa amal xaasisuuna fa kaanu li jahannama li jahannama xataban mhm. gannaaw bu ñu xamee maanaa aay bi euh, maanaa li jahannama xataban xatab xatab foofu lan la d' accord ah. wa amal xaasituuna gis nga wa man ahsanu minna alqaasitun wa ama alqaasit alqist bi firi aljawru walqast bi firi bi firi alqist bi firi aladl waaw kay kunu qawamina bilqist ok wa aqsatu inda allah léegi nag wa amal xaasituuna jinne yi nga xamante ni ñoom ay ay ay tooñkat lañ ay yu bon lañ ñoom fa kaanu dañuy nekk xataban manam di énergie bi xambu di jehanama safara mooy xaasatun yooyu kon ñom ña ñaan ña yàlla la am la an na jahannama minal jinnati wan nas mu xaasatun ci lañ bokk ndax fofu minal jin waaw am la jax minal jin wan nas xam nga ay bi sax moko gëna indi a an-nas wal hijara tay amna nit ño xamanteni ñom ñoy énergie bi xam bu safara. Mhm. maanaam bu doon bu doon ab taal la ñoom ñooy matt mi. am na ci xeer yi tamit ñoo xamante ni. Mhm. ñoom ñoo koy xam. Mhm. léegi yan nit ak yan xeer ñooy xam bu safara. nit ñi nga xamante ñoom ñooy xam bu safara. mooy yéefar yi ah. yàlla incha allah boose. boole yàlla incha allah musal musal. Ah. léegi xeer yi nga xam ne ñooy doon mattu safara. xeer yooyu. ñoom fierté lay doon ci ñoom. ah mbégte lay doon ci ñoom. ñi nekk ñi nekk matt. xam nga lu tax xeer yooyu mooy xërëm yi xërëm yi xeer yi yettoon xërëm yi doon jaamu ah, yi doon yett xërëm ko xërëm di leen jaamu waaw léegi xërëm boobu bi nga koy taxaw di ko jaamu nii moom dafa munta wax rek mais mi ngi wax yow yaa ko déggul de mm. naan la yaa bon yaa ngi may sukkal di ma raama te man suba ba léegi maanaam subhanallah walhamdulilah wa la ilaha illa allahu akbar yaa bon légui suma yàlla joxone digal bu mu mbëkk la doto ma xërëm doto ma jam mais mu amul kattan bobu légui bu yomal xiyamé ne xërëm bobu nak jàpp waa yooyu lak day banexu ah sa parce que mi nga xamné mi ngi mbugal ki nga xamné mi ngi mbugal ki ko ak légui safara yom jinne yi nga xam tamit ñom ñoy nek di di ray nit ñi di di def yu bon di def lo di def naka sulu nonu bu yomal xiyamé ñom ñoy doon safara ñoy doon mat mi alimenté safara moo tax fa kaanu li jahannam xataban hatab moy firi mooy firi matt mooy firi mat mais moy lépp lo xamanteni rek moy jox. moy xam bo moy xam bo safara moy xam bo kay mako jox bu ma sha allah ta xam nga ni safara mom budé xam xambu safara. waaw xam comme safara ko bin moy xam xambu safara. safara boobu dina tàng. inshallah musal inshallah musal. mu teg ci an law istaqamu ala tariqatin la asqaynaahum maan xadaqa buñ ko xamé maanaa aaya bi xam nga sank ba légui yaa ngi wax na jinne yee wax ndax aaya bi waxu jinne yi la wala waxu yunus sallallahu alayhi wasallam al istiqama fii mooy lan ak ñan lay wax wala asqaynaahum maanaam ñan la jinne yi la mhm. wala wala nit ñi la bu dee jinne yi ñu baax ñi la wala ñu bon la bu dee nit ñu baax ñi wala ñu bon la mhm, d'accord xam nga boo delloo ci ginnaaw qul uuxiya ilayya waaw maanaam yonent bi moo ne yàlla wax yu na mhm. ñu ne yonent bi lu la yàlla wax yi mu ne annahu sama nafara min al jinne ay jinne dégg nañ ma léegi jinne yi ko dégg lañ doon waxante ñoom jinne yi lañ doon waxante seen biir te yàlla wax yu ko yonent moom lañ yonent wax sallallahu alayhi wa sallam léegi nag li ëpp ci borom xam-xam yi taman ci la ànd mooy fii nag léegi pare na ci waxu jinne yi léegi nag mi ngi wax ba li ko yàlla wax yu waaw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu kon li wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon uuxiya ilayya waaw ñu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan lan la wax yu qul uuxiya ilayya annahu stamaa wa an la sax waaw boobu da nga koy ataf ci annahu stamaa uuxiya waaw kon uuxiya yonent bi nee na yàlla wax yu na ma ne ma أن لو يست... أن لو يستقاموا على وأن لو يستقاموا على الطريقة لا أسقينا ما غرق يعني لأن يونتي موي وخ وخ بو موي وخ نك جوليت جينيك نيب لا كونستان ليغ آي بي لا وخ واو حرف عطف لا امنا نيت ньохам دنج كاي عطف تي آه، وأنا من المسلمون ومن القاسمين مي nga عطف كو تي اوحي الى يم موي غنا موي غنا انا استمع الله في المنجي وان لا ان ak law hmm. nuun hmm. bu ñu sukkoon mu topp ci laam waaw da nga koy def idgham idgham bi mooy da ngay sadda laam bi wa hmm. al law istaqaamu kay an li fi nekk dëgg-dëgg law istaqaamu maanaam bu ñu juboon tegu temm ala tariqati ci yoon wi la asqaynaahum danañ leen nàndal maa an gadaxan ndox mu bari mais lan mooy loolu mooy kii boobu waaw maanaam istixaama boobu lan mooy lan mooy maanaam ak ak ñan lay wax ci istixaama boobu aaya bi wa an law istaqaamu ala tariqati aaya la bo xam bo ñew ci borom xam-xam bi dañ koy firee ñaar te ñaar yëpp normal la mu mu ñëwale si première bi premier bi dafa naa mooy moom la mujahid firee ak ibnu abbas dañ wa an law istaqaamu buñ jubon istiqama fi li fi al iltizam moy sax manam sax ci njub constant waaw sax وأن لو استقام المسلمون على طريقة الحق لأسقيناهم ماء غدقا مانام يومي ني توب نغا واو بو كونستانتي سا توب غي دغوتي دغوتي يالا نينا دينا لا جوخ علال جوخ لا ليغا بغ وان لو استقاموا مو واو بوبو فاعل بوبو ميغي ديم سي خاصي maanaam buñ buñ jóge woon ci sa. ci seen mbon googu wa an law istaqaama waaw. alxaasituuna yéefar yu bon yi waaw bu constant ci seen yéefar sax ci waaw ala tariqati seen yoonu yéefar yi di doxal seenu kéefar dëgg dëgg dëgg la asqaynaahum maa'an ghadaqan luñ bëgg ci àdduna ma defal leen waaw parce que yaa ne innamaa nuumlii lahum liyazdaaduu isman maanaam déglu bu de waaw ki baax hmm. ki gëm yàlla hmm. bu saxee hmm. ci yoonu njub yàlla nee na ma defal ko lim mu bëgg benn waaw ki bon waaw di yéefar waaw constant ci yéefaram gi gëm ni moom yéefar la waaw si nee nag kéefaram jaay àdduna ak àllaaxiram pour fas yenee dem ci yéefaram gi dëgg dëgg dëgg yàlla nee la asqaynaahu maa'an ghadin lépp koy yomb maanaam kenn ku nekk daal boo dëggoo ca la nga nekk moo xam lu bon la wala lu baax la da ci am la nga bëgg léegi na lu tax lan moo tax man sax bu mujj bi laa gën a àndal hmm. mooy wala istaqaama waaw alqaasit ala tariqi albaatili hmm. la asqaynaah maan gadaqa maa lu tax parce que boo ñëwee am na am na ay alquran yuy dëggal loolu te yonent saa sallam na mooy ajjanaay aljana yi yéefar aljana hmm. boo xoolee yéefar xamante ni ñoo sax seen yéefar ñoom ñoo am asna ma an gadaqan dëgg la de waaw waaw te jullit ñoo gën a sonn ñoo gën a bëgg a dee yéefar yi nga xam ñi ngi sax seen yéefar di ko doxal bu baax di défendre yu bon yépp tey maa an xadaxan al maa foofu euh, euh, dinaa si ñëw sax maa an xadaxan waaw kon mhm. euh, ki bon mhm. te dëggu ci mbonam nga mhm. nekk ci loolu jaay àdduna àllaaxira yàlla neen lu bëgg ci àdduna ma defal la loolu moom waaqee ya la maanaam réalité bu ñu xam la di ko gis nii yonent bi jàngale ko waaw teraangay àdduna daal dina ko am teraangay àdduna boko firé tamit ki djub waaw maandu tegu ci yoonu haq yàlla dina ko defal àdduna àllaaxira boobu it deug la ndax al-quran wax nako ta royalty la deug la waaw an ahli al quran amanu mais mais xam nga xam xam nga ki djub bax dag na yàlla dina ko defal aduna ak al-akhirah mais ki nga xam dafa sax ci mbon nga na yàlla dina ko defal aduna ak kese mais la asqaynahum bi nak ma an ghadaqan fi aduna la aduna la man du yawmal qiyamah du yawmal qiyamah bu don yawmal qiyamah wala istaqamu julit lay doon mais fi ma an xadaqan bi fi ci aduna la gis nga yombal qiyam wa saqahum rabbuhum sharaban dëgg la de xoolal xam nga saqa saqiya fi'l mutaaddi la saqiya usmanu babakar asqa tamit fi'l mutaaddi la mais fi ci aduna ci aduna bi dafa ne la asqaynaa dako taaddi hamza asqayna ma an xadaqan mais bo duggé bir aljana nak muni ni wa saqaahum lu ko waral mooy àdduna fii tey bu la yàlla dee nàndal mhm. du la gasalub teen tànkal la jox la mhm. yow ya àdduna tey boo bëggee ndox yaay defar forage yaay gas yaay góorgóorlu moo mooy asqa bu ndox mi nekkee ci frigo yaay ubbi boo demee biir àjjana nag mhm. wa saqaahum foofu moom boo bëggee ndox doo gasub teen hmm? doo wut robinet doo ubbi frigo bi sa xale nekk si ndox la ndox ma ñëw nànk daal nga daal di naan kon li ma a bëgg xamal foofu ah. mooy asqa na fii ci àdduna la ما أنا غداكن ما فوفو فيري ولن دخده، مي على اللي فيري على الأجمعه. على الأجمعه. أوكي. لكنك لني وق. بمن بقولنا بلقي من خرجنا جون بس طريق طريق. أوكي. أوكي. وأنا بستقامو على الطريقة. الطريقة مي فيري هو يون. هم أنا يون يارلا، أمنا حسية أجمعنا بيها. ما نعم. comme ñu ni yoon wii moo jóge Dakar jëm Tiwaawan mhm. loolu yoon wu concret lu palpable la nga yëg dem ne mhm. déedéet mais tarixa fi yoonu maana wi la maanaam li ñuy wax yoonu mbaax jub comme ñaan ah yoonu njub a ngi nii mhm. yoonu mbaax a ngi nii ah yoonu tabee ngi nii duñ duñ teg duñ la teg sa loxo na fii boo fi jaaree mbaax fa la ngay àgg waaye dañ naan la fii nii boo ko defee baax ah, loolu mooy yoonu mbaax mooy baatu yoon mooy yoon woowu léegi yoon woowu nag mooy yoonu jikko jikko jikko mhm. moo xam jikko yu bon yoon la jikko yu baax yoon la waaw mhm. baax na la asqaynaahu maa an xadaxan léegi maa an ndox xadaxan xadax mhm. mooy lu lu lëgg lu bari lu jeex ba noppi di génn résultat léegi fii lu tax ci alal ak moyen àdduna yàlla indi fa utiliser fa ndox waaw lu tax parce que recherche naturelle maanaam koom-koom mi ngi tàmbalee ci ndox mhm. waaw tey mhm. Seydina Ali ah, Seydina Omar radiyallahu taala wax na nee na foo fu am ndox mhm. am alal ku am ndox am alal waaw ah. am ndox fu am ndox waaw am alal dëgg la yaa ngi dégg maanaam fépp foo xam ne ndox a nga fa boo liggéey am alal waaw Euh, yooyu bi saa sana wax na ni ragaluma ci yéen ñàkk de mhm. mais ëllëg li may ragal ci yéen mooy barakaatil ard maanaam recherche naturelle bi yàlla di génne ndox meeg yooyu mhm. ah ngeen topp ko ba bàyyi lislaam mm. léegi maa fii tamit firiwul ndoxu géej gi wala ndoxu teen wala déedéet déedéet ah. pétrole bi ci lay bokk waaw pétrole bi ndoxum pétrole ah. Ah, gaz beeg yëpp gaz ci bi ci lay bokk léegi tey xoolal ci àdduna ku la ku la gën ku la ëpp pétrole. ëpp la gaz. ëpp la ndox. Mhm. ëpp la suuf bu mën a taxaw pour bay. espace mhm. Mhm. yaa gën a riche ci àdduna. dëgg la de. ba mu des Afrique. Afrique ngay ñëw fekk fa Afrique maa an xadaxan mu yalwaan. <laughs> Afrique ngay ñëw xoolal maa an xadaxan suuf si. Ah. loo ci bay mu nangu. Afrique ngay ñëw maa an xadaxan mu am dex am géej am taw. ah Afrique ngay ñëw maa an xadaxan mu am gaz am pétrole. ba noppi Afrique torox alku bay dugg ci gaal yi pour dee. doy na waar doy na waar. ah moo tax moo tax fii bi ko alxuraan. di wax mbaaru kon istixaama gaa fa nekkul xanaa. ah maanaam xist gu moo fa moo fa nekkul raxee na maanaam. lépp mën na faa nekk. parce que xam nga ñi nga ñi ñi nga xam dañuy dund injustice. ah bu fekkoon ne jógee nañ ci seen injustice injustice googu ñëw waan la istaqaama ala tariqati. bu boobaa kat la asqaynahum maan xadaxan rek. waaw jeex tey xoolal Niger Niger soixante dix pour cent ci courant wu France. Mhm. ci matière seen kii bi lañ koy jële waaw maanaam France tey courant bi muy alimenté. nga xam courant bi muy dox énergie bi. waaw soixante pour cent. waaw mën nga ni sax daanaka mën nga ni sax. waaw Niger la koy jëlee. waaw maanaam Niger mooy tax France tey am courant bi gën a baax ci àdduna. Mhm. am ko moom France ah. te Niger amul courant. nga ne. Nigéria moo koy may courant. moo tax bi affaire bi amee muy day dagg courant loolu loolu Babacar loolu loolu nan la ko mën a nit imaginer nga dem nga nga ne France mooy quatrième pays bu ëpp or ci àdduna stock or mhm. ba garanti ñu ñun ñun CEDEAO ak France mhm. euh, CFA bi moom moo ñu garanti or mhm. pour ñu mën a am xaalis te suufu France amul or te or bi ëpp si àdduna bi mooy Mali <laughs> te Mali amagul monnaie doy na waar ah en tout cas yërëm yërëmtalu na yërëmtalu na ci Afrique macha allah léegi radiyallahu taala daan na wax ni ah man de nit ku ñuul jaaxal na ku kenn bëggul te bëggul boppam dana waaw Seydi Hadji Malick nee nit ku ñuul lu mu def lu jubóog boromam bu yemal xiyaame perte na dëgg la de dëgg la de wallaay ndeysaan est-ce que mu teg ca li naftinahum fiihi wa man yurid an zikri rabbi nasluku azaban saadan gannaaw buñ ñu xamee maanaa aaya bi jumla bi lan moo ko fi indi maanaam phrase bi ak fitna fii li naftinahum mu googu ñan lay waxal jullit ñi lay waxal wala yéefar yi. léegi jumla bi moo la wax jumla i'tiraadiya. jumla i'tiraadiya. moom la ñuy wax entre parenthèse. waaw comme ñu waxtaan bi mën a entre parenthèse dugal benn kii. waaw loo xam ne bokkuloon ci waxtaan wi. mais wax koy indi wax indi wax. mais na alquran. xam nga tey bi ma la waxee sànq da nga ne ma ñu dugal ci loo xam bokkul ci waxtaan waaw. mais alxuraan nag jumla i'tiraada maanaam bu si dugalee. Mhm. da nga naan da ngay tudd naan bëgg ko ci waxtaanee. mais ak ci am solo point bu am solo lay doon. Hmm. point boobu. waaw maanaam yàlla nee na. Mhm. boo tegee si yoonu njub. Mhm. maanaam ñu jullit ñi bu tegoo si yoonu njub gëm yàlla. dinaa leen jox koomu àdduna. Hmm? boo ko firee noonu baax na. waaw yéefar yi. saxee ci seenu kéefar. gëm ko. jënd ko seen àllaaxira ne laa leen jox koomu àdduna léegi baatu li naftinahum fii ngir ma nattu leen waaw dinañ ci ñëwaat insha allahu taala mu ngoog li naftinahum fihi wa man yurid an zikri rabbi nasluka asaban saada incha allahu taala dinañ ci ñëw léegi xam naa ne bu ñu kiiwee mën naa am foofu la ñuy taxaw sax incha allahu taala daal di jëlaat kii bi waaw nga ne jinne jinne yi la sa jinne yi la sa comme yow. mën nañu faj micro bi rek. ah dara ci ñoom. ah. loolu gën a tuuti si li ñu def maanaam fi mu ne nii mën ngay waxtaan ni fekk boo demee jinne yaa ngi toog ci plateau bi wala toog di seetaan di déglu gis ni xëy na neexoon wala dara ñu jaar ndànk fay micro bi. waaw daal léegi bu dara joxañ fee de. loolu dara si ñoom. waaw li na fi ne fii wa man yurid an zikra bi nasuka asaban saadan. léegi. lii nag ci maanaam yaa ngi doon wax jumlay iftiraat la. Ah, mhm. maanaam yàlla nee na euh, yéefar yi li tax ma jox leen àdduna. Mhm. àdduna lépp yomb ci ñoom koom yomb ci ñoom. Mhm. li naftinahum fiihi pour ma naa leen ñi gën a bon bu yombal xiyaam yi mën leen a bëggal. ñi nga xam dañoo jub. tegu ci yoonu njub di jaamu yàlla. moom jox leen moyen àdduna. li tax ma jox leen moyen àdduna. moy li naftinahum fii ma xol ndax dañ may sante a ashkur am ak fur li ñu ci yàlla Suleymaan jox waxon يونتي الله سليمان امون لا اسقيناه ما انا تذكر مي لان لا واخ يالا اشكر اما فور لي دي لي نفتناهم فيه مانام علال جيما ادنا بي ادنا بي يالا تاغت من يونتي الله سليمان تكو سما لوخ يالا تكو سما لوخ لي تخ موي لي نفتناهم فيه دا فماي تيست ناخ داما كو تي ديفال لي مبغ ولا داما تي بيو مانام اكزامي لا ndax dama adna wala may échouer d'accord motax li nafsi nahum fi mhm. wa man yu'rid an dhikri rabbih yasluk adama sa'adat mhm. léegi baatu li nafsinahum fii moo tax wa an law istaqaamu ala tariqati la asqayna maan gadaxan mën nga koo firee yéefar bi waaw yéefar bi tegu ci yoonu mbonte waaw constant ci yoonu mbonte jàpp yoonu mbonte gëm ko di def lu bon subaa ngoon guddeeg ñëm la asqaynaahum maan gadaxan dama koy jox àdduna ba mu doyal sëkk ñu ne ko lu tax mu ne li naftinahum fii pour mu nekk fitnaam pour mën a dugg safara ëllëg dëgg la de wa an law istaqaamu man aslama taxarraw rashadan ki jub baax tegu si yoonu njub ah la asqay naa man xaraxan mën naa ko may àdduna mhm. ba àdduna bi nag gëmm ci kawam lu tax li naftinahum fii pour ma mhm. defar ko test waaw xool xool xool ba xam day beew wala day day day maan ah. wa man yu'rid an da mhm. waaw wa man yu'rid wa man yu'rid an dikri maanaam zikru foofu euh, lan la wa man yu'rid an dikri rabbihi saada adaban saada ki ma jox mooy àdduna mooy àdduna bi tax mu mhm. dévier yàlla mhm. defe lu ko neex mhm. yaslu ko adaban saadan yàlla ne dinaa ko dugal ci mbugal mu metti mu xat bu dee jullit bi bu baax bi tegu si yoonu njub ma jox ko àdduna àdduna googu tax mu wàcc yoonu njub ba dévier man yàlla dinaa ko mbugal bu dee yéefar bi nga xam dama ko jox àdduna àdduna boobu ma ko jox tax mu gën a bew dinaa ko mbugal moo tax li naftinahum fiihi wa man yu'rid an dhikri rabbihi yasruk adaban sa'adan moo la mën a firil wa an la istaqaamu ci ñaari ñaari côté yëpp ñu baax ñu bon macha allah professeur xam naa dañuy taxaw foofu incha allah sadaqallahu alazim bu ñëwaatee commencé wa annal masajida lillah incha allahu taala jërëjëf ci leeral yu am am solo yi nga xam ne indil nga nga ñu ko ci suratul jinn Mouhamadou Ndoye xam naa xëy na bu ñëwaatee ajjuma bii di ñëw incha allah suratul jinn jeex moom mii laaj jinne yi kañ lay jeex waaw de Fama Fama Sow nee na jinne yi war naa jeex ndax ña ngay ña ngay jaxase ñi ngi jaxase ñi ngi jaxase régi bi rek tabaarakallah waaye yëpp yiw la macha allah euh, di la jaajëfal bu baax di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla dolli la sutura ak tawfiix euh, bu la ñuy ubbi antenne bi euh, ñu sargal ndokkeel sëriñ Pam Maxtaar Kebe mhm. ci li nga xam ne maanaam docteur honoris causa bi nga xam ne defal nañ ko ci benn université mhm. بنك اتازني فتبارك الله تعالى لانغ عرب تبارك الله لولو دي ندم تي سنغال واي دي ندم تي افريك دي ندم تي درب نيول دي ندم اوسي تي حضره بي مي دي ندم تي كرم امام شيخ الحاج مالك ندخ كو خامني مودان نيك غورغ شيخ الحاج عبد الله رضي الله تعالى عنه خسيدا ميو بري بوكاي بيند موم موكاي بيند فتبارك الله مبولم تاي تي حضره بي Euh, discours boo xam ne xalifa xalifa bi sëñ Babacar wala xalifa yi fi jaar yëpp euh, discours yi ñuy def yëpp ci arab moom moo koy jàng ci arab bu paree firi ko yenn saay sax bu ñu amee gan gan yoo xam ne ñu ngi jógee ci réew yu arab moom sëñ ma Pa Maxtaar Kebe bokk na ci ñi nga xam ñooy ànd ak ñoom di traduire seen ay wax ak tamit di wax di bu ñu bu ñu waxee mu traduire li nga xam moom lañ wax ci wàllu arab bu ñu amee discours boo xam ne ñoom lañu leen di moom moom lañ leen di kii bit moom moom lañ koy jox moom Pa Maxtaar kon ku am taxawaay la ci kër gi waaye lii ñu ko lii ñu ko defal da koo yeyoo waaw dëgg la premièrement ñu ndokkeel xaaji euh, Pam Maxtaar Kébé ci doctorat faxriya bi nga xamante ni université euh, kii américain bi damay fàtte tur bi mhm. defal nañ ko ko waaw wax dëgg fi yàlla lu mu méritoo la mhm. lu mu méritoo la mhm. ci anam yu bari bu dee ci wàllu xam-xam fa tabaarakallaahu méritoo na ko bu dee ci langue arab bi tamit mérito na ko mhm. bu dee ci jikko ak liggéey lislaam it mérito na ko mhm. yàlla na nekk njiglaayam fan wu gudd ak wér topp ci amiin yaa euh, nit ku baax la mhm. man dafa da bokk ci sama souvenir dund ndeysaan waaw man tey su ma doon bind livre sama dund mën naa ni quatre-vingt pour cent wala page ñaari page ñett ñeent bu ne dana ci feeñ ci yu bëree bëree bëri wax naa nee naa Babacar Euh, sama première laxdari bi ma njëkk am sama dund Pape Makhtar mu ma ko jëndal hmm. fekk mu ñëwoon kër aale hmm. laaj ma loo bëgg ma ne ko lax laxdari mu ne bi may ñëw naa la ko indaale boobu sama papa ngi dund hmm. maa ngi gën nekk xale mu indi ko ma jël téere bi di daw ba dugg ci paanu póotit mi ak téere rax dari bi ah, dañ doon fóot xam nga bu njëkk ma ngi doon fóot rek bànne ah, ñëw dugg ci biir mooy paanu grand booba xale laa ay cinq ans yooyu laay am rek da dugg ci biir tooy xepp tooy xepp ak ak ak bi yooyu ay yoor yoor la woon ay dix heures dix heures demi dañu jël téere ñu jël téere lax bi képp ko ci ligne bi ligne bi waaw weer pour mu wow léegi man ma ñëw toog nii waaw d'accord téere bi nii ñun waa léegi waa dama xaar pour mu wow ñun ma nga toog ne ne taatu garab ga ci kër gi ma lànk bu ma xëccee jooy <laughs> toog di ni man man man maa ngi toog si naaj bi nga di xaar kii bi. mooy mooy laxdari boobu ma daf la euh, euh, bi nga xamante ni moom la maam Abdou bind. sama mag sëñ Moustapha Ndiaye. Mm-hmm. ma nuyu ko ak Baye Ibba Gueye génn àdduna. Mm-hmm. pour ñu war maa jëlee kar aale. Mm-hmm. indi ma ci daara ci loxo si mbi Abdou. lettre boobu Pape Makhtar Kébé moo ko bind. est-ce que maa Abdou wax si ne sëñ Ibba sëñ Moustapha soxna Umu damaa bëgg suba ngeen indil ma maam Ousmane fii si Jaksaaw ñu gàddu ma indil ma. biñ may jël di ma jox sëñ Bay Abdou. Mhm. Pam Maxtaar la maam la ma Abdou woo ba mu ñëw. Mhm. mu ne ko kii papa daf ma ko dénkoon dama koy jox sëñ Bay Abdou Fass Tour laa ko bëggoon yóbbu mais dama koy bàyyi jox ko sëriñ. Mhm. bi may jël di ma teg ci loxo sëriñ. Pam Maxtaar a ngi toog euh, maam sëriñ kamara Pa Cheikh si. yaa ngi ak yenn mag yi mu ne ko maxtaar dama bëgg nga seede ko li bàyyam bëggoon ci man pa maxtaar ne ko wax yëngal boobu ne seede naa ko image yooyu may nekk xale waaw këram laa nekkoon ma Abdou moo ne woon naa nekk këram bum bu mu tumuranke bi may jóge Tiwaawoon di ñëw dakaar nga xam mooy sama première jóge daara ja ñëw ci otoom laa dugg sa première ñëw Dakar sama première ñëw Dakar gis nga xam ne trois cent defe naa trois benn oto du may bañ a publicité ah. oto kii la woon bu xawoon a yama mbaay ni ah, ndeysaan mooy mooy tax sa mbaar yooyu rek waaw kay maa ci laa duggoon ni si ginnaaw ma ànd ak moom ah. bu ñëwee ñu jubali Mauritanie ci Aly Ndiaye waaw bi ñu demee jóge fa àll nañ dem ci sëñ Maodo ñu dem kër sëñ Maodo ñu àgg dugg gisante ak moom nangam ñu jël ma yóbbu centenaire mu wàcc sama bagage yi uh-huh. bi may wàcc sama bagage yi dem mbuus bi ma yoroon waaw mbuus gi ma yoroon mbuus uh-huh. gi ma yoroon maa ngi gàddu mbuus benn mbuus bi moom moo ko téyeel nii boppam ñu yéeg si kaw étage bi waaw bi may dem Égypte toog bi ñu toogee sama yaay toog eh, Ali Ndiaye toog Pam Maxtaar ñu toog waxtaan dénk ma li ñu dénk ba pare uh-huh. sama yaay gungewu de demul ma sàmb dem kenn demul man ak Pape Makhtar ba kese ñoo dugg ci oto bi. est que ñu jubale aéroport. est-ce que mais sama premier tukki ni àgg. Mm. bi ñu àggee ma gàddu bagage yi mu gàddu ma mbuusu ñu dugg aéroport ñu dugg mu xaar ma ba ma peese ba kii ba pare ñëw tàggatoo ak moom ndeysaan. Mm-hmm. Mm-hmm. yaa yaa ndeysaan ndeysaan image boobu moo ko dee seetaan. waaw ah, wallaahi. wallaahi ndeysaan est-ce que waaw. <laughs> tabaarakallah mu doon am daal di ñëw ma ñëw kott ko daal di jooy. Mm-hmm. ma ma boole ma góorgóorlu. ñu waxtaan noonu ndeysaan image yooyu ma ñëw bi ma ñëwee vacances ci moom laay nekk moo tax ndeysaan ba may toog ma xelal bi may si moom daf fàttali yu bëree bëree bëri waaw moom ma saan ñëw ci ma Abdou eh, yenn saa yi ma gisantee moom mu ni ma sa maam nee na mi ngi lay laajte mm-hmm. waaw maxtaan daal yaan yàlla guddal fanam allahumma amiin yàlla guddal fanam ndeysaan am solo wallaay wallaay ndeysaan pa maxtaan eh, li lay gën a kii ci moom mooy boo jotee boo bokkee moom jotaay jotaayam rek mën na laa yar mm-hmm. ndax yaroom eh, ndax ku toll ni Cheikh Alhaji Abdou Dabakh radiyallahu anhu mu ànd ak moom Euh, te booba mi ngi gën a nekk ndaw waaye euh, maam Abdou wóolu woon ko ci lu bëree bëree bëree bëri loolu daf lay wan rek ne macha allah lii lu sax la ci moom maanaam euh, yar bi nekkul ne loo xam ne dañuy toog rek nan pa maxtar léegi dafa yaru mais ku ko mas a xam ca ngone ba ci mag tabaarakallaahu ca yar boobu nga ko xamee te te itam noonu la nekkee ci wetu xalifa yi fi jaar yëpp nag bu fi maam Abdou jógee mu nekk ci wetu sëñ Mansour borom daara ji gis nga sëñ ma demoon na ba benn jamono wér gi mayetu ko ko guddi gàmmu discours bi mi bind Pa Maxtaar la koy jox na ko waxtaane ko ndeysaan jël yéreem solal ko ko mm-hmm. ah, bi mu fi jógee sëriñ Abdoulaye Al Amin tabaarakallaahu discours bu ñu bu ñuy bind euh, moom la koy jox na ko jàng ko ba léegi ni euh, sëñ Babacar Sy Mansour tamit ne ko noonu discours bu ñuy bind cérémonie officielle moom la koy jox na ko jàng ko mu nekk nag ci wetu Cheikh Hadj Malick Sy Maodo fa tabaarakallaahu moom it sëñ Maodo tamit fonk ko lool ndax ni ko bàyyam fonkee woon kon kóllëre googu tabaarakallaahu di dox ba léegi euh, moo tax moo tax bu bu bu amee lu mel nii dañ koy tiitaroo ñun dañ ko daan tiitaroo di ko sagoo mm-hmm. moom pamaktaar mm-hmm. mais lii rawatina fa tabaarakallaahu mm-hmm. kon yàlla na yàlla gën a guddal fanam te yàlla yokk wéram yàlla musal ko ci cat ak làmmiñ sama yaay nee na ndeysaan sama papa bi muy doog gaañu nee bu guddee bu guddé da dama yee sama yaay nek sama papa ñëw na am ñum andal mhm. ñi ngi dugg ni di gis yooyu waaw nek sama papa ñëw na mi ngi dugg ci ndig amna ñum andal gënu ngi na aduna waaw dugg ma ngi nek xal man li fatlu mu ko sa dañ ma koy netti rek mo tax man da nga del ci wat yow ci mag ña nga bokk yow ñi sama dellusi ñi nga fokk sama yaay ne ndeysaan biñ ko waxé ma abdou ma abdou safara bi ma jox pa Makhtar la ko jox parce que mu indi ko mu indi ko beccëk kër aale ndeysaan di jox ma ma naan ci seen musi waxtaan daal bëri na bëri na ay souvenirs yu am solo yoo xam ne mënu ma ko sax nettali si tey wallaay wallaay ndeysaan yal na yàlla guddal fanam allah allahumma amiin nit ku nit ku yiw la amiin incha allah moom sensu mag ñi la mhm. mën nañu ubbi téléphone bi ci 33 833 50 ngi nuyu bu baax alxaaji Waly Danso moom mi ngi ànd ak ñun ci euh, téléphone ci euh, émission bi tabaarakal nuyu bu baax baay Cheikh Niang ca Kanda ca Kaolack fa tabaarakal laa daa am ku ñëw Euh, mu ngi noonu tabaarakal di nuyu suñu euh, bàyyi seen Samba Ndiaye alxuraan ni ñu ko waxee léegi waaye du nuyu El Hadj Ndiaga Guèye alxuraan. Mm-hmm. tabaarakallaahu moom it di ko baax. bëgg alxuraan euh, di bëgg alxuraan fa tam di ko mën a def lu baax. moom itam mm-hmm. macha mm-hmm. allah ñu nuyu ko bu baax ziyaara ko. tabaarakallaahu ziyaare mboolem ñi nga xam ne ay soppee maayidatul xuraan lañ moo xam nga bokk ci groupe soppee asfiyaay wala ànd doole asfiyaay wala xale asfiyaay wala bitig yi nga xam ne sax dañoo bopp tuddee seen bopp asfiyaay fa tabaarakallaahu allo asalaamaaleykum asalaamaaleykum allo. waaw allo. waaw asalaamaaleykum soxna si maa ngi lay ziar. maaleykum salaam maa ngi maa ngi leen di lu bëri dafa doon eh, waxtaan. daan naa nangu kan la kooku. Fatim Lo. Fatim Lo. waa kay Fatim eh, foo may woowee. Allemagne. waaw ah, bisimilah ñu ngi nuyu waa Allemagne yëpp bisimilah. ñu leen di fay ñu rafetlu allah professeur ñu gind ci jinne moom. alhamdulilah mën ko gind ci jinne xam ah, am dégg nañ ci. Euh, bëri Abdourahmane yokkal ma retour ñu dégg ko bu baax. Mhm. mu ne. man ko ñuy nuyu professeur di rafetlu waxtaan bi ndax ñuy gind ci jinne yu bëri xamuñu ko woon. wallaay ndeysaan jinne la. <laughs> waaw man dafa am benn question ko laaj dama doon dégg ma demoon benn conférence boobu maa ngi Sénégal weeru koor léegi oustaz bi waxtaan dafa nit moo ëpp xam-xam jinne waaye xam nit xamul lool nit dafa yaakaar jinne ko ëpp xam-xam waaye nit moo ëpp xam-xam jinne mm-hmm. waaw loolu boobu lay laaj mm-hmm. Adja Fatim ah, mu ne euh, dafa mas a dégg benn benn oustaz mu ne ëpp xam-xam jinne xamul na moo ëpp xam-xam jinne mm-hmm. ah, waaw loolu loolu moo tax boo jàngee saa bi daf koy tegtale tey jinne moo ëpp xam nit moo ëpp xam-xam fuuf mhm. jinne bokkuñu sax waaw euh, jinne yi ñoo ñëw di jàng si nit ñi hmm. ak jinne alxuraan bi ñu jàng si nit lañ ko jànge waaw dëgg la parce que man man dégg naa ba taay euh, euh, yont bi jàngal na ay jinne Seydi El Hadji Malick jàngal na ay jinne Cheikh Tidiane na ay jinne mais musuma dégg ñooy di jinne jàngal na diw sàngam xanaa añ jabar waaw man euh, jinne sax man na am xam-xam bu jàngee waaw mën na am xam-xam mais nit ci ni ko yàlla binde da ngaa mës a gis benn livre boo liir jinne taalif ko déedéet gisu ko ma ko de ci xëy na wala dara xëy na yow moo nekk ci seen ci seen jinne nag mën na am xam-xamu boppam nag waaw waaw mais nita ko nita ko man daal nit ma ko ñu jëlaat ki ci ligne bi que 33 833 50 57 Adja Fatim Lo Allemagne fa tabarakallah ñu sant ko ba nuyu waa Allemagne yëpp moom ma foofu ci Angleterre وأنا في أمريكا فتبارك الله وإدفاع نجلين دنيا بعد لنزار سرين سيد أحمد سي تبارك أبو مام حبيب نيو سخنا مسخنا ماجين وأنا في إدفاع يب زيار لين وأنا في نيويورك أسي فاتو إنجلين وازاي سيد الحاج مالك بنك فوف ما شاء الله ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سرين بنجلين زيار نجلين دلو كان لك هو سيد لامين سيد لامين سال سيد لامين فال خمنا سنت سنت سنت يدنكو سنت نكفال Sall Sall ah Sall maa ngi na Fall Sall Fall nga wax saw Sall Sall day dàq Fall moom. Euh, ñu ngi leen di ziar dafa rek nag waaw yàlla na leen di ziar Sall. ñun de émission bi dëgg dañ ko sopp lool lool lool lool suñ koy euh, suñ ko commencé sax duñu mën a jóg. dem ndax loo ci perte da lay attiré de sorte que doo si mën a bouger fenn doo mën dem fenn. ndeysaan walla wallaay ndeysaan. Euh, ñu ngi leen di ñaanal. amiin. gudd gudd fan. allahumma amin amin yàlla yàlla yàlla yàggal leen fii façon bi ngeen di tafsiré. ñun ñii mhm. suñu jàng sorewul waaye. dëgg doo ko dégg feneen. dëgg la dëgg waaw loolu wér la. <laughs> Ah, mais ni ngeen di da macha allah déglu dégguñu ko feneen. alhamdulilah wallaay dëgg la mbokk sax Ibadu Rahman la. Mhm. nee na day dégg tafsiram. Mhm. dëgg la. waaw est-ce pour wax ni leen ni ngeen di tafsiré. c'est unique. c'est unique. dëgg la dëgg la c'est unique mais man aussi bëggoon naan laaj si wàllu jinne dama dégg ñu ne jinne lu paase xamul si dara lu luy ñëw rek ñëw lu luy ñëw rek la xam. Hmm. mais luy paase su xasee ba jàll. Hmm. Euh, euh, euh, xamul lu lu paase wala xamul luy ñëw am na leen loo xam ñu ngi koy wax mais dama xamul au juste. ban la si maanaam lu fa lu lu paase fàtte na ko li ñëw li ñëw la mën a xam waaw. Hmm? waaw ma léegi professeur mu ngi lay tontu waaw waaw nee na nee na waaw loolu lu am solo la ñi eh, baal ma ci waxin sax yenn njëbarkat yi yenn dóorkat ñoo koy naxe nit ñi naan jinne xamul démb mais lii ñëw la xam ah. loolu loolu alquran da koo weddi carrément boo demee ci ci alquran yonent yàlla Suleymaan yàlla nee na bi yonent yàlla Suleymaan di liggéeyloo jinne yi mhm. maanaam liggéeyu punition quoi mu mel ni nga tëj personne di ko liggéeyloo travaux forcés mhm. liggéey bu metti yentiya sulaiman génn aduna to ñom xamuñu ci dara ba max gi moko maxe maxee daanu mu tell ji lañ wàññeeku te xam ne day génn aduna lan la alquran wax buñu xamone xamoon xay bu bu ñu xamoon xew ëllëg kon duñu ñu nekk ci travaux forcé bu metti mbugal moomu yaa law kaana ya'lamu xay maa labisu fil adab kon duñu duñu sax fofu wa inna la nadri asharrun urida min fil ard mom jinne ñoko wax xamuñu li xew ëllëg léegi nak ndax ñom li passé xamuñu ko loolu c'est faux parce que lutax amna ay jinne yo xamanteni ay muqaddam seydou hadji mo len jangalon am na am na ay question yo xamanteni nit ki dana ko réer mu dem laaj jinne ji xam ko kon jinne day xam même même sar bi rek dafa wedd parce que bo bo xolé ni wa inna dana naan waa kay kunna naqudu minha maqaida lis-sam' très bien motax sar bi lu am solo la nit ki diko déglu d'accord accord dañuy wax rek jinne xamul li ñëw ëllëg waaw bu ne bu dee jinne ju baax nag nekk nitu yàlla comme ni comme ni Seydi Hadji Malick comme ni saxaaba yi nekk ay nitu yàlla mm-hmm. xëy na yàlla compal leen tuuti ci ray bu mm-hmm. ilham leen ko ñu xam ko mën naa nekk macha allah jërëjëf Sidi Lamine Sall macha allah jërëjëf Sall euh, ñu ziar ko bu baax euh, ba tey ci 33 833 50 57 Baye Cheikh Tidiane Sène Baye Cheikh Tidiane Sène tabaaraka bokk ci euh, groupe soppe asfiya yi macha mm-hmm. allah bokk ci mag ñu jàmbaar ñi moom nekk ci gannaaw Baye Birane Wayal tamit it macha allah nee mi ngi lay ziar bu baax di yow professeur tabarakallah ñu ngi koy nuyu bu baax diko diko diko ziar. mu ngi noonu allo wa assalamu alaykum waaw mbokk momu kan la. Asfiya yi la wala. waaw yaa ngi Asfiya yaa ngi direct kan la koku wa man la mohammed tanjigor mohammed Mouhamed. wa mohammed Mouhamed. wa Mouhamed bismillah fo ñuy wowe ma ngi Dakar. waaw bismillah mohammed waaw. waaw yaa ngi damaa déglu ci waaw damaa ah. déglu émission bi rek euh, euh, neex na ma trop ma ne xaaral ma gërëm leen. jërëjëf jëf Mouhamed. waaw dëgg la mais. Mhm. dé dégguma dégguma olof bu baax mais li ñu li ñu dégg tafsir moom macha allah. jërëjëf jëf tabaaraka déglu si téléphone bi. waaw ah, ah. alhamdulilah kontaan nañ trop. da ngay wàññi télé télé bi dégguñu téléphone bi. ah ok. waaw uh-huh. ok. kontaan naa trop parce que suuratul jinni moom li ñu. tafsir nii. c' est très très important. alhamdulilah jërëjëf. wax dëgg yàlla di yàgg naa dégg ay tafsir mais bii moom comme bi mel nii mosuma ko dégg. wallaahi wallaahi dëgg waaw macha allah alhamdulilah yal na yéen gudd fan. jërëjëf jërëjëf. ñu yokk xam-xam in allah. amiin amiin yaa rabbal alamin. ok salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Mouhamed Tanji Gora. jërëjëf Tanji Gora tabaarakallah ñu nuyu ko bu baax ziar ko. Mhm. macha allah xam naa bu ñu amaatee kenn wala ñaar rek yëkkati jotaay bi incha allah taala 33 833 50 57 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk ñu ngi lay ziar. delloo ziar kan la kooku. man maa ngi tudd Adama Diaw. Adama Diaw. Ah? Adama naka Diaw. Arona Arona Sow. Ah, Arona Sow lay. waaw ziar da lay ziar waaw foo may woowee. Mbour. Mbour naka waa Mbour. ça va sant yàlla baax alhamdulilah. alhamdulilah bisimilah Cheikh Arona. rajo HPI laa bëggoon woote yaa ngi direct waaw yaa ngi direct ci émission bi. waaw ah, daa am li bi rek. waaw waaw parce que dama bëggoon xam ndax jinne yi ndax am nañ ko am ay sëriñ comme nit ñi ni ñu amee ay sëriñ mhm. bu fekkee loolu am na encore ma bëgg a xam ndax euh, jinne yi ñoom dañu leen tuubloo seen bopp comme fekkee am na ay yi yoo xam ne nekkuñu ay jullit mhm. yeneen jinne yi mën nañ leen tuubloo mhm. waaw incha allah jërëjëf Harouna professeur bi ñu ciy tontu léegi waaw incha allah incha nan dafa laaj ndax jinne dinañu am ay sëriñ ak tamit ndax yéen jinne yi nga xam nekkuñu ay jullit ay jinne ñoom dañ leen dañ leen dañ leen mën a tuubloo jërëjëf laaj na laaj bi am solo mhm. xam nga émission bi di di ubbi téléphone bi gars yi di laaj dina am solo waaw da ci am solo waaw jinne yi dañuy am sëriñ mhm. comme ñun ni ñu amee sëriñ mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jàngale nee na bii kat damaa ñëwoon ci kilifaay jinne yi maanaam sëriñu jinne yi nga xam moo leen yilif doon waxtaan ak man bi si des it alquran wax nañu nee nañu jinne ba ñu dégg alxuraan ba pare wallaw ilaa qawmihim mundirin dañoo dem ci seen moroomi jinne di leen waar pour ñu dugg pour ñu tuubal leen macha allah waaw kon jàppal ni kun naa taraaxiran ñun société nit noonu nu jinne mel am na jinne ay ibaadu lañ ay ashari lañ am na jinne yoo xam ay salafiste lañ am na jinne yoo xamante ni ay tiijaan lañ ay mutasawifin lañ waaw loolu dafa am macha allah waaw tabaarakallah muy la am am solo yaakaar naa ne bu ñu amaatee kenn rek Cheikh Abdourahmane Abdourahmane Fall jinne Euh, bu ñu amaatee kenn rek incha allah bu jinne wootee nag bu jox ko Ousmane Ndiaye directement bu jinne wootee bu ma ko jox 33 833 50. 57 dinaa jinne mën na woote nag. ah waaw waaw bu bu wootee nga wuyu ko allo salaamaaleykum. macha <laughs> allah. mbokk ñu ngi lay ziar. sëñ Aboubacar maa ngi lay ziar. yal na yàlla nangu ziar ko kan la. Mouhamed Diop lañ koy wax. Mouhamed Diop. benn soppe bu dëkk ci Tiwaawan. wallaay ndeysaan ñu ngi lay ziar Mouhamed. ñu ngi lay ziar bu a di di di di wax ak waxal hmm. ci kaw ñu dégg la. dégguñ la bu baax. di amaat mbégte bu baax a baax tey. jërëjëf. di wax jàngale bi am na solo lool te leer na it. jërëjëf jërëjëf Mouhamed. waaye jàngale bi tamit. liñ ci gën a tuuse mooy aayat bi aoudu billahi min alcheytan irrajim وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ayat boobu war nañ ci war ngeen ci gën a jàngaatal su doon te da ngeen di ñaanaat professeur technicien yi nekk ak suyaari TV ñu jàngat bi ngeen jàngat foofu noonu fekk ñu vidéo boobu. Hmm. partagé ko ci amaat jàngat. waaw. parce que foofu suñu borom subhanahu wa taala li ko wax macha allahu taala. Hmm. kon yàlla ñu yàlla may dégg ak topp. allahumma amiin amiin yaa rabbal aalamiin yàlla. amiin jërëjëf. am naa yaqin suñu borom subhanahu wa taala dina la sàmm. jërëjëf. waaw jërëjëf Mohamed macha allah. Hmm. jërëjëf euh, doon wax lu am solo ci ci taxaraw rasadal bi dañ ko doon firee yoo xam ne war nañ ko mën a gën a yaatal ndax euh, njëriñ la alxuraan mel noonu lépp njëriñ la mu mel nii tabaarakallaahu xam naa mooy suñu dernier téléspectateur buy woote incha allahu taala ñu ngi nuyu bu baax Baye Moussa Silla ca waagu ñaay di way jur alxaaj Famara Silla di nuyu madame Silla muy soxna ay ay dara di ko ziar bu baax di nuy nuyu Mamadou Ndiaye tabaarakallaahu ca euh, géejawaay di ko ziar bu baax tabaarakallaahu di ziar soxnaam soxna Euh, soxna Aïcha taw di ziar njaboot gi yëpp macha allah euh, di ñaanal di leen ñaanal foofu ñu nekk ca dalal jàmm. Mhm. yal yàlla dalal leen fa jàmm. tabaaraka allah ah docteur Hadi Diouf. docteur Hadi Diouf waaw moom ah. borom xam-xam la. ndeysaan ñu ngi koy ziar waaw borom xam-xam la nekkoon su suñu magu daara ci waaw ku jàmbaar la leen bi di ko rafetlu ah de dal na suñu xel ndax yow borom xam-xam la macha allah wallaay wallaay dëgg la waaw Sadi moom moom daanaka borom xam-xam yëpp ku ñu naw la ku ci mel sëriñ Babacar Abdoul Aziz macha allah émission bi du ko tardé ndeysaan suñu sëriñ Cheikh bu maam Abdoul Aziz Dabakh moom tamit maam Ousmane Sy euh, bu maam Habib tabaarakallaahu ah, ñoom ñëpp sëñ sëñ Mansour si bu sëñ Mansour ñoom seen émission la wallaay ñoom ñëpp tabaarak ak sëñ Habib Maam Abdou daanaka waa kër gi ñëpp ñoom ñëpp kenn ku nekk daf lay wax ne la émission bi waa daara ji ku ci mel Souleymane Ba moom moom nañ lu mu doon def bu émission commencé moom tabaarakallaahu ah, émission la de ah, macha allah ñun seen ndongo lañ dañuy tari seen kanam rek tabaarakallaahu en ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla ku si ku si euh, dégg tamit naka su sudul noonu rek mhm. loo xamante ni xëy na jaaduwul rek ma tàllal naa la loxo. waaw woo ma rek dama nangam ak. motali ndax ay motali ko daal di. waaw waaw ku si dégg naka sunu ndax ay ndaw lañ. Mhm. te àlluwa ji bëttagul. yàlla nattu nii rek kon bëttagul nii. ji bëttagul de. waaw kilifa yi daal ku si dégg naka sunu noonu. jox naa leen sama bopp. waaw jox naa leen sama bopp woo ma ne ma ne ma lii bu ko def wala lii bu ko wax wala mhm. nangam ak i nangam. Mhm. waaw taalibe rek la ñuy nangoo doon incha allah. incha allah taala di ñaanal yàlla suñu mbokki euh, murid yi nga xam ne ñoom it ñu ngi waajal màggal gi yàlla na euh, ci safar 18 safar tabarakallahu di leen ñaanal yàlla aussi yàlla na yàlla yóbbu leen ci jàmm yàlla yàlla yombal lépp yóbbu leen ci jàmm mhm. indiwaat leen ci jàmm ñaanal sëriñ Muntaxa mhm. euh, Basiru tabarak moom yàlla na yàlla gën a guddal fanam ak mhm. njaboot maam Cheikh Ahmad Bamba gi yëpp waaye ñi nga xam ne ñi ngi waajal leelu kat mi yëpp timit yàlla na yàlla yombalal leen ko incha allahu taala yooyu yëpp incha allah asfiya dina ci am taxawaay boo xam ne taxawaay yu am am solo la fa tabarakallah kon mbokk yi sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla da nga taggo ba pare waaw xana li nga taggo rek parce que amna suñu mbokki mouride yo xamni dañuy bëgg émission bu baax baax bu baax ci njaboot Cheikh Khadim waaw sama njaboot ay mbàkk mbàkk lañ fa xam-xam ñor na la wa ñu nuyu leen ziar leen baax baax la xar wa nag ndax seen mam Cheikhul Khadim mom léppam alquran deug la waaw jaawartu bil furqan rabbiyal muin mom léppam léppam alquranul karim la xëy na nag cofeel googu foofu lañ ko jele ñun tam ñu ziyaar leen ndokkee leen di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla yóbbu ci màggal gi ak jàmm salaam yàlla teg ñëpp ci jàmm yombal lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amiin yaa rabbal alamin mhm. allahumma amiin yaa rabbal alamin incha kon ñu jaay ñu jaajëfal Cheikh Abdourahmane Fall jinne bi nga xam ne moo nekkoon euh, ci régie bi waaye tamit soxna Fama saw jinne ju jigéen ji moom mi nekk ci wetam tabaarakallaahu jinne ji góor ak jigéen ñoom ñoo nekkoon ci régie bi di def seen ay yëfi jinne fa tabaarakallaahu maam Ousmane moo ma ko wax ne naa ko wax moo ne ma Abdourahmane jinne la Fama Sow jinne la kon boo boog yéen jinne yi nekkoon ci régie bi ak jinne Moussa mi nga xam ne ñëwagul moom jinne musa moom lu turam daa siiw jinne Moussa moom jinne ah jinne Moussa waaw ah, jinne Moussa Diop moom siiw na moom moom jinne Moussa eh, tabaarakallaahu ak eh, jinne Rabia Rabia tijjeen yaa ngi tooñ ku mën a tontu nag ah yaa ngi tooñ mën a tontu mais Moussa fu muy tonto ci air bi man li may wax ñëpp a ngi koy dégg te moom bu waxee kenn ko dégg di di di nuyuwaale tamit jinne maam Omar Ndiaye ah, ndax ah, jinne maam Omar Ndiaye moom tam diine DG mooy <laughs> waaw la intéressement Omar Diaw mu yaru mu baax mi tabarakallahu du xasta du gaaral ñu sant ko gërëm ko moom itam sant leen gërëm leen jox leen dig daje insha allahu taala euh, jinne mooma dundoo ci Italie jinne mooma dundoo ci Italie moom ñu ngi koy nuyu <laughs> di ko ziyaara tabarakallahu waaye gis nga jinne ju mag ji nag ju màggat ji mooy njëkk a sàmm mooy ifrit <laughs> xam na waa xam na la tabarakallahu xam na la ñëw ma jinne ju màggat ji jinne ju màgget ji mooy Njaga sàmm Njaga Sàmb bu fekkee ne jamonoy Firaw kooku yàgg na fi de <laughs> waaw moom dafa nuroog jinne sax jinne la Njaga Sàmb xanaa <laughs> màggatum jinne la am na lu mu bokk ak ñoom de wallaay ndeysaan moom la jinne la kon yéen ñoom ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje insha allahu taala ajjuma ak jàmm eh, tabaarakallaahu waa zen waaw jeune moom jeune ku fay jinne jeune alaaji bàyyi jeune ne ñëpp jinne lañ ah jeune ñëpp ay jinne lañ kon yéen waa jeune yéen waa jeune jinne ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xalifa bi sax sa Mouhamadul Moustapha si Muxtaar tabaraka ak imam tabarakallahu dimbale ma waay mus déedéet imaam imaam imaam imaam Moustapha Ba tabarakallahu Mbaye Diop na daw ah ak ñoom Mouhamed rek ñoom ñëpp ah Dabax si tabarakallahu ñoom ñëpp daal waa jeune maam Joogu Ñang ñoom ñëpp di sant leen gërëm leen ziar leen incha allahu taala kon yéen waa seen jinne yi yéen tamit ñu nuyu leen ziar leen tabaarakallah xam naa moom mooy defar attaay ji maam Ngoone moom aljaanam leer na nañ waaw ah. nañ maam Ngoone su ma su ma gisee jeune jinne jeune ju mag ji mooy mooy Sidi <laughs> Sidi Ahmed Si <laughs> kon ñu sant leen gërëm jox leen di daje àjjuma ak jaam insha allah ci beneen jotaayu jinne <laughs> wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu